jërëjëf euh, Makhtar Samb jërëjëf it euh, mbokki auditeurs yi nga xam ne saa si tembe ngeen a ngi toog di déglu rajo Futur Media RFM 94 point 0 kaddu gi di bàyyi ko file ci Ndakaaru Midina yu 15 Angle Corniche euh, jamono jii ñuy wax ak yéen 23h moom moo jot bay soog a tegal fukki minute ak ñett ni ki noonu itam ca Makkatal Mukarama ñaari waxtu di 2 moo fa jot ba tegal fukki minute ak ñett. États-Unis d'Amérique 18 et 13 la ñu toll ay ca kon tey jii euh, moom mooy euh, juróom benn fan ci weeru janvier ci atum 2023 euh, dëppoo itam ak dëppoo ak fukki fan ak ñett ci weeru maamu koor ci atum 1444 radio service bi lañuy door Euh, tàmbalee ko ak euh, waxtu julli ci réew bu Sénégal yëpp ak li ko wër euh, daañu koy doore ci fii ci Ndakaaru Ndiaye Jal Diop bi nga xam ne moom moo di capital bu Sénégal jàpp suñu banlieue suba ak jàmm fii ci Ndakaaru kon Makhtar Samb daañu julli suba 6h21 minutes tisbar 13h45 minutes takkusaan 16h45 minutes timis 19h03 minutes gee 20h14 minutes. Euh, bu ñu bàyyi ko fii ci ndakaaru dañuy dem ba ca xeeson Jurbel ak dëkk bu sell bale di Touba Mbacké jàpp Taïf ak Sadio ñoom suba ak jàmm 6h15 la ñuy julli suba eh, tisba 13h39 takkusaan 16h39 minutes eh, timis 18h57 minutes gee 20 h bu ñu fa jugee dañuy dem ba ca xeeson bu Fatick di dëkk président Macky Sall ñoom suba ak jàmm 6h17 la ñuy julli suba eh, tisba 13h41 minutes takkusaan 16h41 minutes timis 18h 59 minutes gee 20 heures 10 euh, minutes Louga loo di kër mbër gu bala ñaan ñoo ci topp ñoom suba ak jàmm 6 euh, heures 13 la ñuy julli suba tisbaar 13 heures 37 takkusaan niki noonu itam 6 16 euh, heures 37 minutes timis 18 heures 55 minutes gee 20 heures 6 minutes Kaolack Ndangaan ak Medina Baye Niass dëkku seexal islam El Hadji Ibrahima Niass di Baye Niass ñoom suba ak jàmm 6h17 minutes la ñuy julli suba Tisba 13h41 minutes Takusaan 16h41 minutes Timis 18h59 minutes Gee 20h10 minutes foofule fële Seex Mahi Niass xalif général bu Medina Baye Niass fële yeewoo yal na fa yàgg lool te ànd Kolda ñoom suba ak jàmm 6h10 la ñuy julli suba Tisba 13 minutes Takusaan 16 16h34 minutes timis 18h52 gee 20h3 minutes Matam di dëkku Ali Bandel Niang ñoom suba ak jàmm 6h10 eh, la ñuy julli suba tisba 13h34 takkusaan 16h34 timis 18h52 eh, minutes gee 20h3 minutes Tambacounda dëkku musa Omar Gueye ñoom suba ak jàmm 6h07 la ñuy julli suba eh, tisba 13h31 minutes takkusaan niki noonu 16h31 minutes timis 18h49 minutes gee 20h0 Thiès Ngaye Bénédicte Yarigar ak Tiwaawan la ville sainte dëkku Cheikh Seydi Hadji Malick Sy jàpp Ndiassane ak Canaba ñoom suba ak jàmm 6h19 la ñuy julli suba tisbar 13h43 takkusaan 16h43 niki noonu niki noonu timis 19h1 minute gee 20h12 minute Eh, Ziguinchor Casamance jàpp bi Bignona ñoom suba ak jàmm 6h17 la ñuy julli suba tisbaar 13h41 eh, takkusaan niki noonu 16h41 minutes timis 18h59 eh, minutes gée 20h10 Amady Ndiaye loolu mooy waxtu julli ci mboolem réew bu Sénégal ak li ko wër. ñu dem ci leneen may gën ca gaaña bu la neexee gannaaw ba may nga ma mbaax ya sama doom gën ma fuuf ba gën ma ci jaamu jaama jaamu jaama yàlla bu la neexee tey jii li may bon kay bon simil ak saal nga def ma may gën ca gaaña bu la neexee gannaaw ba may nga ma mbaax ya sama doom gën ma fuuf ba gën ma ci jaamu jaama yàlla li ma yëg xam ko xam bu wér li ci man la su baaxul buur yàlla aw ma feneen it xaw ma nag waaye jaam ngi tey bu tooñ yi not li mu jaamu yàlla ma yëg xam ko xam bu wér li ci la su baaxul buur yàlla aw ma feneen it xaw xam nga yow na nga may def jaama ngi tey bu tooñ yi li mu jaamu yoonu ñeewantewul raxmaan fu nu jëm kon xajuloo ci ñun ci jil ñu sa yi di ñu ommat ñu naan kon ndam ba ca ndam ya ñu ko dénku mu wàññeeku des di la jaamu yàlla loxo yee xol bi lépp ngi jëm jaa soppe yeeg doom yi ñépp a ngi yàlla aaral soxla yeeg aajo yeeg waree fi ma war tey jërëjëf Amady Ndiaye ay ca kon Kabir Sène ñu koy gërëm bu baax di ko sant moom la ñuy àndal ci euh, pàcc bi ñu tollu leneen la topp ci waxtu yu julli gannaaw bañ ca jàllee moo di bis yooyu daañu koy moytu yi moom laa leen di bëgg limal amadi eh, kenn du ci sanc kenn du ci tukki taloo daloo lu bees tàmbali ci dara fas ci ab sëy eh, xarafal fóot wala watu yooyu yëpp daañu koy moytu eh, ci bos bis yooyu moom laa leen di bëgg a limal suba nag bokk na ci bis yi nga xam ne rafet na samedi la 7 janvier 2023 lay doon dëppoo ak fukki fan ñeent Eh, ci weeru wolof ci atum mille eh, cent quarante 1444 bis yu ñaaw ya ma nga tàmbalee ci lundi le 9 af le 9 janvier 2023 eh, dëppoo ak fukki fan ak juróom ña dëppoo ak fukki fan ak juróom benn Eh, ci weeru ko rakkaati gàmmu ci atum 1444 eh, mu di jumaada saaniya eh, gannaaw bañ ca noppee samedi la 14 mille 2023 dëppoo ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru ko de saaniya moom itam daañu koy moytu lu may loolu ñetti fan yii taqaloo moom kenn du ci laal benn bokk na ca mardi le 17 janvier 2023 mercredi le 18 janvier 2023 ak jeudi le 19 janvier 2023 mu di ñaar fukki fan ñeent ñaar fukki fan ak juróom ak ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer jumaada saaniye eh, ci atum 1444 jumaada saaniye moo di maamu koor ñu xam ne kon ndayu koor moo ci topp barax lu topp ca weeru koor dal di ciy topp euh, kon lu yées ñetti weer moo dox suñu diggante ak sahru ramadaanal mubaarak ñu bàyyi ko xel bu baax a baax euh, bis yi moom bokk na ci nga xam ne rek daañu ko moytu euh, kon lu may loolu ñu fàttali ne ne dimanche le 22 janvier 2023 dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru jumaa jumaada saaniya mu di maamu koor bis boobu la ñuy séntu weeru ndayu koor mu di weeru rajab bu feeñee kon ñu daal di xam ne Euh, lundi le 23 janvier 2023 mooy bis bi njëkk ci weeru rajab bu feeñut it euh, ñu xam ne kon mardi le 24 euh, janvier 2023 mooy bis bi njëkk ci weeru rajab bu boobaa nag ñaari weer képp mooy dox suñu diggante ak weeru koor wala boog weer ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent wala ñaari weer yu manqué ñaari fan kon ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax bokk na ci bis yi nga xam ne rek daañu moytu képp ku ci. séq ak soxnaam euh, kon benn fan rek euh, moo ci des ci bis ñaari fan bokk moo ci des ci bis yoo xam ne limoon naa ko euh, mu di mercredi ca guddi la 11 janvier 2023 dëppoo ak fukki fan ak juróom-ñett ci weer wolof ci guddi googule bu ca kenn séq ak soxnaam samedi itam la 21 janvier 2023 ca guddi ga di guddi dimanche guddi googule mu di ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wolof moom itam bu ci kenn séq ak soxnaam nañ ko moytu bu baax ndax mën na jur ay jafe-jafe yoo xam ne ci seen diggante rawatina ci li nga xam ne moom moo di njaboot gi di njaay leneen la ca topp rek kon ñu nuyoo ñu dem te ñu su géej yi di sànni di ko dottil njaboot gi ak àndandoom ya di ko dottil xeetam ba daaru bilay jaaraama jaaraama ñel na Muhammad jaaraama jaaraama ñeel na Muhammad jaaraama jaaraama ñeel na Muhammad jaaraama jaaraama sang ba ca Medina jaaraama ñeel na Muhammad jaaraama jaaraama ñeel na Muhammad jaaraama jaaraama ñeel na Muhammad sang ba jaaraama jaaraama sang ba ca Medina jërëjëf sàng ba ca Medina Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne mooy suñu xol moom la bëgg àddina moom la bëgg itam alaxira gëm ko wóolu ko tey yaakaar ko doyloo ko ci lépp àddina ak alaxira fas yéene doon ay jullit yu yàlla nangul seenu jullit fas yéene doon itam ay euh, nitu l'islam loolu rek lañuy ñaan yàlla kon moom Seydina Muhammad mi nga xam ne moo jiitu ci suñu xol moom la ñu gën a bëgg ci lépp lu yàlla bind. yàlla nañu Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam euh, boole ci ay jullitam boole ñu itam ci ay taalibeem euh, ci barke euh, jëwrinam ju tedd ja di Seexuna Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moom nga xam ne Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam rek la defoon muy référence am. Eh, ca kon suñu référence yi ñu ngi leen di nuyu tàmbalee ko ci suñu kilifa diine jëpp ñu ngi leen di wax salaamualeykum doore ko ca dëkk bu sell bële di Touba Mbacké ak xalif général des Mourides eh, de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ñi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala eh, mu dooli ko fee yàggal bu baax a baax a baax a baax a baax te dooli ko wéral niki noonu itam xalif sénéral des Tidiane moom itam ñu ñaan suñu borom mu dooli ko fi yàggal te dooli ko wéral ak mbooleem xalif sénéro yi ci Sénégal yëpp daañu ko gën yaatal ci kanam tuuti ay ca kon ñu nuyu bu baax kilifa aada yi di ko teg ci loxol président de la république mi nga xam ne moom la ñu jël réew mi ak doxinam teg ko ci ay yoxoom ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu ay jëwrinam ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk réew mi ci wàlluk àddina di borom kër yi soxna yi njaboot gi ba ci surga yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax salaamaaleykum ñi amee naqar saa si tembe ñu ngi leen di masaw di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu wutalal leen lu gën loolu nga xam ne moom la ñuy naqarlu ñi ci mbégte saa si tembe ñu ngi leen di ndokkel ci seen mbégte moomu di njaay xam nga ni àddina noonu rek lay doxee jamono ji nga xam ne ay nit a ngi ci naqar bay yenu seeni loxo di yuuxu naan yaa wayli am na ñoo xam ne ña ngi ca mbégte di tàccu ak reetaan di wax ne alhamdulilah àddina la yàlla bindoo noonu euh, moo tax nag kon képp koo xam ne yaa nga ca la nga nekk ña nga la cay fekk di ko fa yéene bokk ak yow euh, di nuyu nag euh, képp koo xam ne mi ngi ci kaso yi di prison yi ci Sénégal wëngal képp tàmbalee ko fii ci Ndakaaru bépp prison bu fi nekk ñi ngi nuyu ña fa nekk tàmbalee ko ci rëbës gii nga xam ne moo ñu gën a jege 100 ba ca Cap Manuel Amady Ndiaye ak kaso ba la ca Liberté 6 nu mu tuddati camp wala bokk euh, waaw prison yëpp rek ñi ngi leen di nuyu Eh, képp ku ca nekk eh, jamono ji tembe di ma déglu ndax li tax eh, diggante boobu ñor ma mooy ñi ci prison yi dañuy ñoo xam ne samay soppe lañ di déglu émission bi te kaso ku ne xam na ne jombul kenn yàlla nañ ci yàlla musal te musal ñi nga xam ne duggaguñ fa ña fa dugg itam yàlla na leen yàlla génn ci jàmm te sàmmu leen aar leen ba du ñu masa defati dara loo xam ne da leen fay dugal kon prison yu Sénégal ba ci sax sénégalais ak sénégalaises ak africains yi nga xam ne ña biti réew nekk nekk ca prison yi ñu nekk ca réew ma ñu nekk toog di ma déglu ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax salaamu aleykum ndax ku ne xam na ni àddina yaatu na loo jàpp ne àggu fa jàppal ne yegg na fa eh, koo jàpp ne déggul sa kàddu itam jàppal ne ma nga di déglu sa kàddu eh, kon ñëpp ñëpp ñu ngi leen di wax salaamualeykum eh, di nuyu bu baax a baax ñi nga xam ne ñi ngi ci jafe-jafe ñi seen aaju faju ñi ngi leen di wax salaamualeykum képp ku yëngatu ci wàllu kër doctor di santé salaamualeykum képp ku yëngatu itam ci wàllu sécurité ak défense bu république bi salaamualeykum képp ku yëngatu itam ci l'éducation di jàng ak jàngale bu république bi salaamualeykum képp ku yëngatu ci wàllu commerce di jënd ak jaay ci république bi niki noonu itam salaamaaleykum képp ku yëngatu ci wàllu transport di dem ak dikk ñoom itam ñu ngi leen di wax salaamaaleykum niki noonu itam communication ak bépp pàcc boo xam ne euh, mooy dox ci réew mi la di Sénégal ñoom ñëpp amadi maa ngi leen di fekk fa ñu toog di leen wax salaamaaleykum ay ca kon ñun itam dañuy dellu rot rek eh, sujootal suñu borom waaye nag dellu rot sukk ci suuf nuyu képp koo xam ne aw xeet la te nekk ci réew bu Sénégal tàmbalee ko ci suñu mbokk yi wolof yi eh, di leen ñaanal guddi jàmm pël yi ak tukulóor yi jëm xiiri eh, séeréer sinaafiyo ngir po joolaay kuti yonkule ñoom ñoom dee saafuñ soosey mandi mandinkool saraxulay xalel la bambare soninkay mandinkay avini tile français bonsoir anglais how are you jazaa'ul xayri di nuyu seen waay di leen wax wancang ñahaw endoy salamat malam dellu nuyu waa Hollande di leen wax koy naa fontu waa Brésil bom nu waat dellu nuyu murid yëpp di waa kër Seexuna Seex Ahmadou Bamba Xadim Rasul Tijaan yëpp wala wa waa Tiwaawoon di waa kër Seex Seydi Haaji Malick Si xaadir yi di waa kër Seex Abdoul Xaadir Jaylaani laayeen yi di waa kër Seydina Limaamu Laay ñaseen yi di waa kër Maam Abdoulahi Ñas canaba canaba di waa kër Maam Amari Ndaak Seck ak njabootuk Seex Ahmad Baro Njëgan ak njabootuk Maam Rawaan taal njabootu Cheikh Omar Foutiyou Tall euh, salaamaaleykum di nuyu bu baax suñu mbokki jàngo bi di catholique yi yi ak archevêque yi madame Guèye nuyu naa la. yàlla bu la neexee tey jii ni may bon kay bon simil saal nga def ma may gën ca gaaña bu la neexee gannaaw ba may nga ma mbaax ya sama doom gën ma fuuf ba gën ma ci jaamu yàlla li ma yëg xam koo xam bu wér ci man la su baaxul buur yàlla aw feneen it xaw waaye xam nga yow na nga may def jaam ngi tey bu tooñ yi not li mu jaamu. yàlla li ma yëg xam xam bu wér li ci man la su ma baaxul buur yàlla aw ma feneen it nag waaye xam nga yow na may def jaama tey bu tooñ mu jaamu amadi nag jot na euh, Kabir seen mu may ñu tuuti léegi indicatif bi ma koy jàng parce que nag li ma ci suuf mel na ne sama baat moo gën a neex bosam moom Kabir seen ñu ngi koy nuyu ma nga fële ca États-Unis d'Amérique di rafetlu bu baax moom itam euh, taxawaay bu rafet bi nga xam ne am na ko ci réew bu senegal lii ñuy déglu nii mën na ci sëkk firnde ay ca kon mbokk yi ñu daal di delloosiwaat rek fàttali leen fukk ya nga xam ne Serigne Touba waxoon na ne yu mat a gaawe la ak fukk yooyu waxoon na ne yu mat a bëri la ak fukk ya ca topp mu wax ne yu mat a yeexee la kon euh, bëgg a lim Serigne lu mat a gaawe la Eh, diis ya ca topp nee na dafa mat a bëril eh, diis ya ca topp nag nee na dafa mat a yeexe wala mat a eh, bañ a def ay ca kon seexul xaddim nee na fukk yi mat a gaawe bokk na ca gaaw a julli waxtu julli gaaw a xamal gone alxuraan gone gu toll ci jàng gaaw a teral ab jullit gaaw a nangu ak dëgg ci bu daanoo ci sa kaw li gën a jafe sénégalais yi gaaw a tuub say bàkkaar gannaaw boo ko defee gaaw a fay bor ci boo amee loo mën a faye ba tey li gën a jafe sénégalais yi fay bor moom maye cinquante mille francs moo leen gënal fay borub cinq mille francs ñoom sénégalais yi kenn du ñoom. gaaw a sëyloo jigéen ju toll ci sëy moom itam sëñ Tuubaa nee na lu mat a gaawe la gaaw a fay gan guy nuyoo nee na itam lu mat a gaawe la gaaw a denc ko faatu gannaaw bu faatoo ba noppi ba mu wër la ne faatu na. gaaw a noppi ci ab xuloo itam sëñ Touba na lu mat a e, gaawee la e, nee na bokk na ci fukk yi mat a baril bëril tuub say bàkkaar bëril sant yàlla e, bëril noppi ci wax ju amul tiyaaba bëril addiye ci boo ko amee wala sarax bëril waxu yiw bëril teraanga ci gan bëril sàkku sell ci ndox bëril weexalu mbind wala bëril weexalu ñaan bëril jëfu yiw ak bëril tudd yàlla sëriñ Touba nee na yii mu yu mat a la Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nee na fukk yi yu mat a yeexe la bokk na ci li mat a yeexe fajaru di fayu bor euh, fase sa soxna téye soxna si jàmbur neenal koy laaj te am loo ko mën a jox kalaame ab jullit kalaame sa mbokk wetti aw ñam te gis ku ko mën a lekk dóor soxna si jàmbur dugg ci wax juñ la boolewul ak fab yëfi jàmbur sëñ Tuubaa na euh, fukk yi day yu mat a yeexe la kon ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax am na solo euh, ci kon mbokk loolu mooy li nga xam ne rek conseil ne na xajoo service bi ci rajo Futurs Médias ci seen émission bu mag bi di première émission fii ci réew bu senegal ci seen émission yóbbalu jullit amadi kon wëlbatil ma laab gi delloo ma fa ma nekkoon ma dem te ñëw. رسول كريم بيتنا سار أحمد وخاسى والموت وجعل سرمدا رسول سفير في البرايا محمد المختار لا خلق مثله لا ماي قد قلت والعود أحمد أتاني بسم الله جمت عباده بشير حبيب والأسى قبل مهمة jërëjëf euh, Amady Ndiaye jërëjëf it euh, mbokki auditeurs yi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo Futur Média maa ngi nuyu bu baax Babacar Diakhoumpa maa ngi jot euh, message am mi ngi ñuy déglu Babacar Diakhoumpa nekk fële ca Rufisque di nuyu bu baax waa Tëngéej gi yëpp bàyyiwuñu kenn rawatina sama mbokk soppi taalibe Cheikh yi nga xam ne. ñu ngi foofu la ca Tëngéej maa ngi leen di nuyu Diop RFM maa ngi lay nuyu tabaarakallahu yow itam di rafetlu sa taxawaay ak uh, it ji nga am ci émission bi ba saa su jotee loo jàppoon bàyyi ko ñëw teewee ko di ko jàllale ci li nga xam ne moo di groupe soppe maam Mamor Mbacke kenn Serigne Touba. Uh, kon ñu tàmbali suñu bind bu njëkk ci tasawu di xaar maa ngi nuyu nag uh, sama benn confrère mu nekk fële ci APS di agence presse sénégalaise di Soxna Nday Fall maa ngi koy nuyu. Euh, moom itam di rafetlu bu baax taxawaayam ak liggéey bu rafet bi nga xam ne mu ngi koy def foofu la ci APS. di nuyu bu baax suñu confrères yi nga xam ne ngi ci mbooleem groupe de presse yi nekk fii ci réew bu senegal ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. Euh, ay ca kon ñu tàmbali tey suñu bindu tey gannaaw ba ñu jeexalee buntub malaayika yi ñu fas yéene dugg tey ci buntub téere yi. Euh, dafa am nag mbokk bu ma woo kero ci numéro téléphone bi may joxe fii ci rajo bi. mu di 78 422 45 bi may joxe dafa mbokk mu ci woote wax ne euh, dafa bëgg euh, téere bi nga xam ne moo di tasawudu sixaar bind bi ñu ciy joxe muy gën a gudd ndax nee na ñu ciy joxe dafa xaw a gàtt ma ne ko dama bëgg mu moo ko mu ne ma mais boo calculer ne semaine vendredi ngay joxe bind bind boobu ngay joxe semaine bi yëpp moom la ñuy jàng ma ne ko effectivement li nga wax dëgg la mu ne ma kon donte da ngay joxe benn buntu ba mu àgg bu ko defee semaine bi yëpp ñu nekk ci bunt bi bu mokkee bu àjjuma dellu see nga joxe beneen bunt ma ne ko effectivement li nga wax moom lu xel mën a nangu la bu doon chaque jour la ñuy joxe bind kon danañ mën a wax ne kon lu mu gën a gàtte gën a baax mais comme semaine ba semaine lay doon mën nañu leen a jox buntu kon tey jii buntu téere yi buntu boobu la ñu fas yéenee jël jàngat ko ba mu jeex tàkk euh, bu ko defee fekk àjjuma ja cay topp ñu mën a jël beneen buntu. aca kon bunt bi mooy faslun fil kutubi samaawiyati mu commencé ca imaanukum bi kutubi tasdiixu bi annaha insaaluha xaqiiqu wa annama fiha mahan xaqun bila shakkin faman saddaqaha naalal xula xadaduha xaddun wayaun wayaun unsilat minha ala aadama fi ma xad sabat fii ma xat sabat nuunun ala sisa ibnihi summa ala idrisa laamun yaa ala xilli wila ala alxilli wila tawreetuha qad ihtawaaha muusa injiiluha qad ihtawaaha hiisa zumma hawa zabuuraha daawuda kama ihtawa furqaanaha mahmuudu alayhim salaatu wasalaam alayhimu busra wa annahum xalaqahum min nuuri rabbuhumul baaxi bila takdiri ah déedéet déedéet waaw kay alayhimu salaamu alayhimu salaatu wa salaamu maa habbahum rabbul wara salaamu waaw kay loolu mooy suñu bindu tay moom la ñu fas yéene jàngat ñu fas yéene koo firi ci baati xarab buñ noppee wax maxanaa yi buñ noppee ci maxanaa yi nag euh, soo ko firiwaat buñ ca noppee soog a mën a jàll ci leneen ngeen bàyyi ci xel bu baax am na solo sëñ Mouhamed Ndiaye sama bindkat boobu maa ngi koy nuyu ci kanam tuuti ma ciy ñëw sëñ Touba dafa wax ne faslun lii ab dog la walla lii ab xaaj la walla lii ab pàcc la wala lii ab parti la ba tey boo ci wax baax na mu ne fil bi ca téere ya asamaawiyati yadi kojug asamaan mu ne lii day ay téere la yoo xam ne mi ngi bàyyikoo ci ko asamaaw mu ni imaanukum seenu ngëm bil kutubi ca téere yi tasdiixu mooy dëggal maanaam nga dëggal leen bi annaha ci naka ñoom insaaluha seenug wàcc xaqiiqu aji dëggu la waaw kay sëñ Tuubaa nee na seenu ngëm ci téere yi mooy nga dëggal ne lu am la nee na nga dëggal ne téere yi lu am la nee na seenug wàcc daal nee na dëggalal ne lu wér la bala ngay gëm la ca nekk ak la ca biir sëñ Tuubaa nee na seenug wàcc maanaam dëggalal ne téere yi lu wàcc la bàyyi ko ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mu ne wa annama naka la nga xam ne wa annama naka la nga xam ne fiiha nekk na ci ñoom biir téere yooyu mahan mboole seen xàqun dëgg la bila shakkin ci lu dul benn sikk sàkka wala lu dul benn werante nee na fa man saddaxaha leen dëggal nee na naa la mu am alxula kawe la kawe ga wala alxula kawe sëñ Tuubaa na mboolem li nga xam ne moo nekk ci biir téere yooyu sëñ Tuubaa nee jàppal ne dëgg la téere yooyu nag maa ngi koy junj waxaguma leen yan la waaye ci kanam tuut dinaa leen wax ban ban la ak ñaati téere ak seenub lim ak lim bu nekk ci kan la wàcc sëñ Tuubaa na mboolem la nekk ci biir téere yooyu lépp dëgg la nee na dëgg googu mu dëgg nag sëñ Tuubaa na amul luñ ciy werante waaye nee na yemu ca ku leen dëggal nee na dana amuk kowe maanaam suñu borom dana ko yëkkati dana amuk texe dana amuk dana amuk dimbal sëñ Tuubaa nee na téere yooyu ma leen di wax nag xadaduha seenub lim nee na xaddun téeméer la ak ñeent xaa téeméer la del ñeent la moo tax mu ne xaddun téeméer la ak ñeent muy 114 wayaa un fukk un silat wàcceef na ko miin ha ci ñoom xalaa aadama ci aadama fii maa ca la nga xam ne xat sabat sax na sëñ Tuubaa nee téere yooyu maleen di wax day nee na na xam ne téeméeri téere la ak ñeent sëñ Touba nee na yaa fukk nee na fukki téere diis nee na wàcce nañ ko wàcce nañ ko ci ci ci ñoom ci aadama e, ca la nga xam ni sëñ Touba nee na lu ñu saxal la ngeen bàyyi ci xel nee na nuunun nuun mooy cinquante mu ne nuunun juróom fukk juróom fukki téere si sa wàcce nañ ko ci si sa ibnihi kay doomam moom aadama sëñ na gannaaw ba ñu wàccee ci aadama fukki téere nee na si sa mi nga xam ne doomu aadama la sëñ na doomi aadama moomu la sëñ na wàcce nañ ci moom juróom fukki téere mu di noonu mu di cinquante téere sëñ Tuubaa nee na summa halaa Idrisa nee na topp wàcce nañ ci Idrisa laamoon fanweeri téere laam mooy fanweer laamoon fanweeri téere Euh, sëñ Touba nee na euh, Idrissa moom itam wàcce nañ ci moom fanweeri téere mu di 30 sëñ na yaa un fukki téere xalaa xilli wàcce na ko ca xaritub yàlla ba muy Seydina Ibrahima alayhi salaam nee na wilaa ci toftale sëñ Touba na suñu borom wàcce na fukki téere ci yonente yàlla Ibrahima alayhi salaam mi nga xam ne mooy xaritub yàlla ba sëñ na suñu borom wàcce na ko ci toftale. léegi nag kon loolu mooy limub téere yi nga xam ne moom dafa wàcc ab lim ci ay yonent léegi nag benn benn yi nga xam ne wàcc na ci ay yonente sëriñ tubaa ci lay bëgg a ñëw mu ne xaddi tawaaha làq na ko muusa muusa ah wala boog mu ne tawreetuha tawreet seen maanaam téere tawreet sëñ tubaa nee na xaddi tawaaha làq na ko muusa muusa sëñ tubaa nee na tawreet kañ ko wàcce woon moo di yonent yàlla Muusa mu ne injiiluhaa injiil seen xaddi tawaaha làq na ko xiisa xiisa nee na téere bii nga xam ne moom moo di injiil suñu borom subhaanahu wa taala mi ngi ko wàcce woon ci yonenteem bu ñuy wax Seydina Xiisa alayhi salaam nee na summa hawaa topp mu làq wala topp làq na sabuuraha sabuur seen daawuda daawud sëñ Tuubaa nee suñu borom subhaanahu wa taala wàcc na téere bu tudd saboor ci yonenteem bu ñuy tuddee daawuda alayhi salaam mu ne kamaxtawaa ni ki mu làqe furxaanaha furxaan seen mu di alquranul karim nee na mahmuudu kadi ko ñu sant moo di muhammad alayhi salaatu wasalaam sama soppe xol bi sëñ Touba nee na téere buñ naan alquranul kariim mooy téere bi gën gën a mat ci mboolem téere yi wàcc sëriñ Touba nee na suñu borom wàcc na ko ci ki gën ci moom ki ko gënal ci lépp lu mas bind di seydina muhammad alayhi salaatu mu di alquranul karim sëriñ tubaa na alayhimu yàlla na nekk ci ñoom yonent yooyu mu lim assalaatu dolli ko wóolu wassalaamu ak assalaatu dolli ko teral wassalaamu ak li feek sopp na leen rabbul wara borom bindeef ya assalaamu yàlla mi aji mucc ci xayib cig tënk ma ñëw ci maxanaame sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu nee na ni ngay gëmee téere yi mooy nga gëm ne yàlla suñu borom moo leen wàcce lépp loo xam ne ma nga ca téere yooyu nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa nee na na nga xam ne lu ñu wéral la maanaam loo xam ne daal amul dara loo xam ne luñ ciy weddi la sëñ Tuubaa tam na nga xam ne téere yooyu nga xam ne wàcc na ci yonente yooyu seenub lim boo ko takkee nee na man na téeméeri téere ak ñeent téeméeri téere ak ñeent mu di 114 téere 104 euh, téere boog ngeen baal ma na Seydina Adama alayhi salaam wàcce nañ ci moom fukki téere wàcce nañ ci moom Seydina Adamu fukki téere la ñu wàcce ci moom ndax ñoom sëriñ Tuubaa nee na dañu daan gudd fan lool dañu daan gudd fan lool boo xoolee yonente yàlla noo daanaka dund na junniy at Ibrahima juróomi téeméeri at ak yu ne toll loolu yaakaar naa bokk na ci liñ daan wax ci émission bii nee na Seydunaa si sa doomi Adama nee na wàcc nañ ci moom juróom fukki téere Seydunaa Idrisa wàcc nañ ci moom fanweeri téere Seydinaa Ibrahima mii xaritu yàlla wàcc nañ ci moom fukki téere Seydinaa Muusa moom lañu ñu ci moom tawreet sayduna Hiisa moom lañu ñu wàcce ci moom injiil saydina dawuda moom la ñu wàcce ci moom sabuur saydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam moom la ñu wàcce ci moom alquraanul karim loolu mooy suñu bindu tey kon ngeen bàyyi ci xel. ay ci kon ëmmadi ma jaaraat ci baati arab yi rek bu ko defee ñu daal di euh, dugg as lëf ci li nga xam ne moom moo di yóbbalu bis bi laataa ñuy néggandiku Mamadou Omar Ba ñu dugg ci pàcc bi nga xam ne moo di actualité bi. sëñ tubaa dane faslun lii ab dog la fil kutubi ca téere ya asamaawiyati yay ko jug asamaaw imaanukum seenu gëm bil kutubi ca téere ya as at tasdiixu mooy dëggal bi annaha ci naka ñoom insaaluha seenug wàcc xaqiiqu dëgg la wa annama naka la nga xam ne fiiha nekk na ci ñoom téere yooyu mahan mboole seen xaqun dëgg la bila shakkin ci ludul sikki sàkka faman saddaxaha ku leen dëggal naa la mu am alxula kawe ga wala kawe ya xadaduha seenub lim xadun téeméer ak ñeent la wayaa un fukk un silat wàcceef na leen minha ci ñoom xalaa aadama ci aadama fii maa ca la nga xam ne xadd sabat sax na nuunun juróom fukk xalaa si sa wàcce na ci si sa ibnihi kay moom aadama summa xalaa idrisa topp wàcce nañ ci idrisa laamun fanweer yaa un fukki xalaa xilli wàcce nañ ko ca xaritu bi yàlla ba ibrahima ibrahim wilaa cik toftale tawreetuhaa tawreet seen xaddi tawaahaa làq na ko muusa muusa injiiluhaa injiil seen xaddi tawaahaa làq na ko hiisa hiisa summa hawaa topp mu làq wala làq na sabuurahaa sabuur seen daawuda daawud kamaxtawa niki mu làqe furxaanaha furxaan seen alquran mahmudu muhammad alayhimu yal na nekk ci ñoom assalaatu dolliku teral wassalaamu ak dolliku goolu maa habbahum li feek sopp na leen rabbul wara borom bindeef yi assalaamu miy aji mucc ci bépp xayib moom yàlla suñu borom subhaanahu wa wala miy aji jàmmal képp koo xam ne am nga jàmm ay eh, ci kon mbokk yi loolu moo doon suñu bind tey ci li nga xam ne moom moo di tasawadu sixaar tey ji nag seen émission yóbbalu jullit dana indiwaat spécial yóbbalu bis bi yóbbalu bi nag tey ji indil nañu leen lu bees tàq lu bees pull loo xam ne ma mësuñu ko wax ci seen émission yóbbalu jullit dañu ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo kon ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax am na solo ay ca kon Amady nga yëkkatil ma tuuti indicatif bi ci 10 secondes ma dellusiwaat براكز همتني كما تهمي الذي خلقه يهوى والوجه يبيد العبيد الذي له بلا سرقة من كل هبام وأقول من تشبه غدا يروم دابلا ثم الحفوى دفوى ملكت برابي مختل الحج واليمين بمتن الذي أنت أذى الفلك كالخمين مرامي وجاتي بربي توجهت بعمد وشكر وهو لي كان بحكمي مرادي كوني عبد ربي خديم من أغادر بشكر والغفر ولكنها جلت عن jërëjëf Amady njaay ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant mbokk yi nag bala ñuy tàmbali ñu wax leen lu am solo ndax ku ne xam na ne yàlla day li ko gënal ci kaw suuf ci bépp barab boo xam ne bu doomu aadama di teg tànkam la mooy barab bi nga xam ne fi la ñu koy jaamoo mu di néegub yàlla suñu borom subhaanahu wa ndax alxuraan moo ne wa anna al masajida lillahi fala tadduhu mahallaahi ahadan yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne képp ko tabaxal yàlla nee na ab tabax ci kaw suuf lu mu tuuti tuuti nee na yàlla dana la tabaxal ab pale ca àjjana sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu itam wax na ca lu am solo nee suñu boroom defal na ma suuf sépp doon sama jumaa wax itam ay tiyaaba yu bari yoo xam ne suñu borom def na ko ci tabax jumaa mu am nag jumaa ju mag joo xam ne ña ngi koy tabax fële ca mbakke xewar mu di jumaay Maam Mor Jaara Mbàkke magi mag borom Cham jumaa joo xam ne sëriñ Fàllu Mbàkke moom sëriñ Touba moo ko njëkk a tabax ginnaaw bi ko Maam Mor Jaara borom Cham jàngale ba am njàngam noppi bi fi Maam Mor Jaara Borom Sam bàyyi ko mu tabax jumaay Touba ba mu yegg 1963 mu joxe ndigal ñu tabax jumaay Maam Jaara ji ba mu ko tabaxee ba noppi mu ne sëriñ bu la jàngal alxuraan dey yàlla na ci moom nga jox ko àllarba te Maam Mor Jaara Borom Sam dey sama àllarba ci moom gisuma lu mu gën a bëgg jaamu yàlla ak alxuraan jaamu yàlla googu moo tax moom Mamor Jaara mu doon fanaanee julli téeméeri rakka guddi gu jot tari ca kaamilub alxuraan giirug dundam ba fajar gi mu wàccee ab liggéey julli na téeméeri rakkaam ba mat sëkk ba jeexal kaamilu alxuraan ba fam doon jàppoo ngir julli suba di yeesal am jàppam fa la ko suñu borom moome mu faatu wàccub liggéey ci 1921 moom Mamour jaara borom Cham kon ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax a baax Mamour Diarra borom Cham moomu nag jumaam ju mag ja ca Mbàkke xewar moom la sëriñ Abdoulahi Mbàkke yàllaay buur doon yeesal gannaawam sëriñ Basiiru Saam def ci liggéey bu am solo gannaawam sëriñ euh, sëñ Abdou Mbàkke së së sëñ Abdoulahi Mbàkke yàllaay buur moom itam def ci liggéey bu am solo ginnaawam sëñ du Mbacke Suisse moom itam def ci liggéeyam bu am solo ba nii nag ñu war a toll ci finition yi mu di décoration yi décoration boobu nag ci la sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Ismaahila mi nga xam ne mooy xalifa Mamor Diarra ca la toll. njabootu Mamor jaara borom Cham nag di daayre bi nga xam ne moo lëkkale mboolem sëti sëriñ moor Diarra yi ñu yëkkati seen loxo di ko tàllal jullit yëpp jullit yëpp ci Sénégal jullit yëpp ci àddina rawatina murid yi di taalibey seexul xadim yi xaadimal Mustafa ñu bëgg murid bu nekk joxe benn saako ciment plâtre murid murid bu nekk joxe benn saako ciment plâtre mu toll ci six mille francs di junni ak ñaar téeméer ku man lu ko ëppit ñi ngi la ciy xaar di ci tàllat sa loxo kon ngeen bàyyi ci xel jumaa jii nag jumaa ju mag la ci yoonu murit jumaa ju mag la ci lislaam mooy jumaay Mamor Diarra mi nga xam ne Mamor Diarra ak Serigne Touba bokk ndey ak baay muy magi sëriñ Touba di taawu soxna Diarra bu so ma ca Poroxaan sëriñ Touba topp ci Mamor Diarra Mamor Diarra moom la ñuy dàkkentali magi mag moom la sëriñ Touba waxoon ne képp ku ma wóoluwul sama digganteeg sama borom ci yow dey du ma la yebal ca borom saam. daan képp ku liggéeyal Mamor Jaara borom saam sëñ Tuubaa na man nga ko defal daan ku ko liggéeyal nag warlul naa la ñeenti fay muy yàlla dina la fay yonent ba alayhi salaatu wasalaam dina la fay man sëriñ Tuubaa dinaa la fay Mamor Jaara borom saam am na fay dana la fay nettali nañ ko ci jamono yi sëriñ Saalihu Mbàkke borom xelkom sëriñ Saalihu Mbàkke joxañ baaraam ba boppam ne man it danaa la fay kon benn liggéey juróomi fay Mamor Jaara borom saam rek la ko suñu borom defal jumaam ju mag jañuy tabax ca Mbàkke nag ñi ngi ñaan jullit yépp nañ ci dugal seenu ñaq am na compte yoo xam ne am na Wave am na Orange Money numéro téléphone yi laa leen di bëgg a jox man ngeen a woote ci numéro téléphone ub Serigne Bassirou Bousso ci 77 577 27 80 77 577 27 80 ku ci bëgg am looy barkeeloo wala ngeen woo Serigne fallu Mbacké ca Touba Mosquée ci numéro téléphone am 77 632 26 46 77 632 26 46 ku am looy barkeeloo mën nga ko def ci numéro yooyu ku ci bëgg ay leeralit loo bëgg a joxe ca jumaay Mamor Jaara jooju ñaari numéro yi boo ci woote incha allahu taala sa barkeelu dana àgg. ñuy profité di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Ismaahila mi xalifa Mamor jaara moom itam yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér kon nag mbokk yi ngeen bàyyi ci xel liggéey gënta lay liggéey bi ñu leen waxta mooy taxawu ci jumaa ji nga xam ne jumaa ju mag la di jumaay Mamor jaara Mbacké magee mag borom saam kon ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax am na solo ay ca kon euh, leneen la ca topp rek xam naa juróom benn minute moo dox suñu diggante ak min wi bu ko defee Mamadou doomar Ba dina ñëw tënkal leen xibaar yi ci may français mooy ubbi pàcc bi nga xam ne moom moo di RFM Nuit lu may loolu nag incha allahu taala ñun danañ door ak euh, émission bi nga xam ne moom moo di yóbbalu bis bi ak njëriñ ju am solo yi nga xam ne moom lañu leen fas yéene jox tey may profité nag di nuyu bu baax euh, soxna Mominatou Kébé. Euh, wax dëgg yàlla la ko waral it mooy taxawaay bu rafet bi nga xam ne am na ko ci ñun di nemmeeku suñuy mbir moom soxna Momy kebe di nemmeeku fu ñu toll di nemmeeku itam suñuy activité euh, fu mu toll bu ko defee mu di ca taxaw wax dëgg yàlla taxawaay bu rafet ba nga xam ne moom la way jërëm bu tedd wa di El Hadj Ndiouga Kébé amoon ci mboolem Sénégal amoon ko itam ci yoonu murit rawatina digganteem ak sëñ Abdou Euh, digganteem ak yoonu murit digganteem ak kilifa diine yëpp moo xam murit moo xam tiijaan moo xam xaadir moo xam laayeen moo xam bu mu ci di doon moom El njuga Ndiouga amoon na taxawaay bu rafet boobu ci yow taxawaay boobu nag moom la doomam ju tedd ji di soxna Moominatu Kébé am ci ñooñ lislaam yaakaar naa amul kenn koo xam ne fii ci Sénégal yaa ngi wax ci lu jëm ci diiney lislaam xamante ak soxna Moominatu Kébé moomu wala mu xam la lu dul ne seq na ak yow teraanga yoo xam ne wax dëgg yàlla teraanga yu am solo la moom soxna Momy Kébé kon ñu ngi koy nuyu eh, di ko siyaare di ko ndokkeel di rafetlu ab taxawaayam di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala dimbale ko kon moom soxna Momy kebe ñi ngi koy woo ci jumaa ji di jumaay Mamor jaare ji eh, jumaay Mbàkke Xewar ji maa ngi ciy woo soxna netu Kébé eh, di ko ci tàllal loxo incha allahu taala moom itam mu barkeelu ci di ci woo sëriñ Abdoulaye Dia bu Séniko moom itam suñu mbokk taalibe Eh, di ci woo président Youssou Ndour bi nga xam ne moom moo di PCA bu groupe Futur Média moom itam ci defam lu baax ñu ngi koy woo ci liggéey boobule di ci woo képp koo xam ne rek eh, suñu borom man loo na la dara eh, yaa xam la nga am lu mu bëri bëri ak lu mu tuuti tuuti ñu ngi lay woo ci liggéey boobule incha allahu taala képp ku ci jokkoo ak ñun it di nga ci am lu gën a leer ci bu ci yàlla àndee bu ko defee képp ku ci dugal sa liggéey incha allahu taala daañu ko euh, euh, daañu ko euh, jottali li nga xam ne moom moo di kilifa yi ci numéro téléphone ñaar yooyu nga xam ne moom laa leen jox sànq mu di 77 632 26 46 di numéro Serigne Fallou Mbacké wala numéro Serigne Bassirou Bousso di 77 577 27 80 ñaar yooyu yëpp ku ci dugal saw ñàq wala nga yónnee ca sa addiya dina yegg ca jumaay Mamor Jaara jooju nga xam ne moom rek la ñu am mooy suñu lépp. Euh, te wax dëgg yàlla wolof njaay day faral di wax ne euh, kuy xalam di ca yu barke ba yaay boroom euh, du ñu nekk fii ci groupe Futurs Médias nag ti kër gii nga xam ne ëmma di kër yuusu nduur la te Youssou Ndour moom ci boppam maa dégg ci làmmiñu boppam kenn nettaliwu ma mu ne kër gi kër gu këru gi yaatal la nee na ko xatal bokkoo ko xatal bokkoo kër gi këru gi yaatal la Youssou Ndour nee na ko xatal bokkoo yaatu googu nag moo tax tey jii bu màggal Tuubaa xewee Euh, groupe Futurs média def fa lu benn groupe de presse mës def ci Sénégal euh, bu gàmmu Tiwaawan jotee groupe Futurs média def fa lu benn groupe de presse mës def ci gàmmu euh, bu appelu laayeen yi ñu ngi ko dëgmal yal nañ ci yegg ak jàmm ñu fas yéene ca dem bu ci yàllaandee groupe Futurs Médias def ca lu benn groupe de presse mës def bu pëpp ngir xewee mu dem def ko fa bu Njaasaan xewee mu def ko fa bu Canaba xewlee bu bu bu bu bépp famille diine. Euh, bu xewlee wala lépp loo xam ne jëm na ci lu amal njariñ nit ñi groupe fitre Médias def na ci loo xam ne kenn mosu koo def euh, kon ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di rafetlu kon taxawaayu euh, président Youssou Ndour kon moom itam ñu ngi koy woo kon ci liggéey boobu nga xam ne mooy liggéeyu Mamor Diarra Mamor Diarra borom Saam moomu nag mooy jur suñu way jur bi nga xam ne moo ñu jur moo ñu boole ci Serigne Touba kon ñu ngi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu dolli ko ay ngërëm te dolli ko ay leer. Euh, te mottali ab yéeneem bi nga xam ne amoon na ko ci nit ñi di nuyu bu baax nag euh, sama xarit yëpp rawatina nag euh, sama soppe bopp Mamadou Omar Ba mu di yaay tuuti yaay tuuti wàdd sama soppe boobule maa ngi koy nuyu wax dëgg yàlla moom itam ku ku ku am taxawaay la ci man doon ku ma fonk doon koo xam ne waxtu wu nekk ak saa su nekk mi ngi ittewoo suñu mbir moom yaay tuuti wàdd maa ngi koy nuyu. Eh, di rafetlu bu baax fu mu toll mi ngi yónnee addiya moom itam addiyam du dakk ci ñun eh, moom yaay tuuti wàdd maa ngi koy nuyu ak wayjuram wu tedd woowu nag di suñu wayjur di suñu maam mu di soxna nday Anta Ba eh, nekk fële cee Njàmbur cee Louga moom soxna Ndeye Anta Ba di sama fidel auditrice maa ngi nuyu di ko siyaare moom itam di ko ndokkeel ak doomam ju baax ju sell jëlee di yaay tuuti wàdd mu nekk fële ca Crédit Mutuel du Sénégal moom itam maa ngi koy nuyu bu baax a baax. Eh, ci kon mbokk yi lu yées benn minute moo dox suñu diggante ak minuit di zéro heure Mamadou doomax Ba mooy daal di toog léegi tënkal leen xibaar yi ci kàllaamay français mu ubbi RFM nuit bu ca noppee ñu enseigné ak moom actualité bi bu ca noppee nag ñu sóobu ak yéen ci yóbbalu bi dina am solo tey. Mamadou Omar Ba kaay toog ma dem te ñëw Média. 94 FM. Merci de votre fidélité et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes samedi 7 janvier 2023 et il est minuit à Djamali commune de département de Canil, région de Matam. RFM Nuit, parti. À la présentation, Amadi Ndiaye assure la partie technique. Chili Boubacar, dans le département de Podor, la gendarmerie a mis la main sur un faux médecin. Abdou Diouf est accusé d'avoir pratiqué illégalement la médecine. Le mis en cause se présentait comme étudiant en sixième année de médecine et a eu à effectuer un stage à l'hôpital de Pikine Podor, d'où nous appelle Moumoudli. L'affaire s'est produite dans la journée de mercredi à Chile Boubacar. L'adjudant-chef Sané de la brigade de la gendarmerie et ses un faux médecin qui a eu à exercer dans le district sanitaire de Thillé Boubacar comme stagiaire d'après nos sources. Abdou Diouf, de son vrai nom, se faisait passer pour un étudiant en sixième année en médecine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Selon toujours nos sources, il n'en est pas à son premier coup. Ce dernier dispose de faux documents universitaires et une attestation de stage après avoir exercé à l'hôpital de Pikine. Aussitôt alerté par les responsables de l'hôpital de Pékin, le médecin et ses collaborateurs ont saisi la gendarmerie. Nos sources n'ont pas voulu s'exprimer sur l'affaire. Le présumé faux médecin est entre les mains de la gendarmerie de Podor pour des besoins d'enquête. Mamadouli, Podor, RFM. Mamadouli, la gendarmerie nationale annonce avoir procédé à l'arrestation des présumés meurtriers de la franco-sénégalaise retrouvée morte dans son domicile à Saumon dans le département de Mbour. Il s'agit de deux personnes neutralisées hier en possession d'objets attestant leur implication dans L'augmentation du prix des hydrocarbures, la mesure entre en vigueur aujourd'hui samedi à 18h. Il s'agit du supercarburant essence euh, ordinaire, essence pirogue, pétrole, lampan, gasoil, Un arrêté fixant les prix plafonds des hydrocarbures raffinés à la consommation a été publié par le ministère du Commerce et porte-parole du gouvernement et de son collègue du pétrole et des énergies. Et si vous avez l'habitude de prendre les transports en commun, doublez votre budget. Euh, les cars rapides Ndiagandjaï, Clando, pourraient augmenter le tarif du transport. C'est en réponse à la hausse annoncée du prix des hydrocarbures. Pour les chauffeurs de transport en commun, cette augmentation va impacter sur le transport. Reportage à Kurmasar Aminataba. C'est avec regret que ces conducteurs de taxi clando ont appris la hausse des prix du carburant. Ces automobilistes estiment que cette mesure aura un impact sur leur travail. Cette hausse nous fait vraiment mal. Les temps sont durs. Donc comment allons-nous gérer nos dépenses J'en suis sûr que si cette situation continue, nous allons abandonner retourner se travailler. Cet autre conducteur du de El Hadj Diallo assure la navette Keur massar Lui également est frustré par cette mesure. Pour s'en sortir, il est nécessaire à son avis d'augmenter le prix du transport. Ah, Nous déplorons vraiment cette nouvelle. Si le prix du gasoil ou de l'essence a connu une hausse, c'est la population qui va en pâtir. Nous n'avons plus d'autre choix que d'augmenter aussi le prix du transport. À quelques mètres de là, le rond-point de Les apprentis des cars Ndiaganyaï se disputent les Ces automobilistes se disent désemparés par cette nouvelle. Ça sera vraiment difficile à gérer. Nous avons beaucoup de charges, notamment si cette hausse est avérée, je ne conduirai plus. À partir de ce samedi, les usagers devront débourser 100 francs de plus pour se procurer un litre d'essence. Pareil pour le gasoil, les automobilistes rencontrés dénoncent à l'unanimité cette mesure. Aminata Ba Kër Massar Radio Futur Média. Aminata Ba les consommateurs et commerçants dépassés par l'augmentation du prix de l'oignon et de la pomme de terre au marché central de Mbour ils ont dénoncé cette hausse jugée inacceptable dans un contexte où le Sénégal évoque la souveraineté alimentaire les détails avec Ndeye Matidien. dara yomb gëj na maa togg soos de soos <laughs> Pour ainsi dire que les prix de l'oignon et de la pomme de terre ont connu une hausse vertigineuse. Cette dame en témoigne. Elle est assise sur le trottoir d'une boutique au marché central de Mbour Tout est cher sur le marché. Que cela soit l'oignon ou la pomme de terre, les prix ne sont pas stables et nous sommes obligés de geler quelques plats jusqu'à ce que les prix soient revus à la baisse. Chez les revendeurs, le constat est le même. Matar Diané commerçant. Il justifie les prix de l'oignon et de la pomme de terre qui sont vendus actuellement à francs le kilogramme. Il estime qu'ils ne sont en rien responsables, contrairement à ce que pensent les et la pomme de terre euh, à 15 800 francs CFA. C'est trop cher, mais nous n'avons pas le choix. Les clients pensent que nous sommes responsables de cette hausse mais non ce sont les grossistes qui ont augmenté les prix. Même ceux qui découpent l'oignon sont impactés selon Pape Cissé en deux. Je découpe le kilogramme de l'oignon à 100 francs ainsi je le revends à 850 francs CFA. C'est cher et le gouvernement doit nous aider vraiment pour que nous puissions gagner quelque chose dans ce travail. jàppale commerçant yi parce que réew leen dëkk quoi. Ainsi, les consommateurs appellent le gouvernement à renégocier les prix de certaines denrées qu'il juge inaccessible. Ndemati Mbour, Radio Futur Média. Et de 3, le préfet de Tivawan interdit le rassemblement du collectif de soutien pour la libération du député Massata Samb. L'autorité préfectorale évoque encore des troubles à l'ordre public. Le collectif qui dénonce ces décisions avertit le 13 janvier prochain, il va tenir un rassemblement avec ou sans autorisation. Le secrétaire général de la Fédération départementale du Pur, Gourkidja, au micro de Maguetso. Le préfet de Tiawan a interdit encore une fois la manifestation qui a été prévue au terrain de préfecture, invoquant des risques de troubles à l'ordre public et d'infiltration par des personnes malveillantes. Cependant, la coalition Yewi Askanui de Tiawan et la conférence des leaders s'accordent pour considérer que cette décision reflète plutôt de la peur et de la volonté du président Macky de réprimer l'opposition, notamment suite aux événements

cette interdiction, les forces de l'ordre ont quadrillé la place qui était prévue pour le rassemblement du collectif de soutien au député Massata Samb, nous dit Maguetso. L'interdiction du grand rassemblement des souteneurs de Massata n'est pas prise à la légère par l'autorité de la ville. Une forte présence policière est notée partout dans Tivaouane, surtout au niveau du terrain en face de la préfecture, pour s'assurer que l'interdiction est bien respectée. Au niveau de ce terrain où était prévu le rassemblement, un fourgon de la police y est installé et un autre n'arrête pas de faire la ronde dans la ville. Selon des informations, près de 200 hommes de tenue ont été déployés. Lors de leur deuxième interdiction de se rassembler par le préfet, les souteneurs de Massata Samb avaient annoncé que quelle que soit la réponse de l'autorité de la ville, ils allaient tenir leur manifestation. Cette fois-ci, ils donnent rendez-vous ce 13 janvier. Tuawan Magetso, Radio Futur Média. La coordination des associations de presse met sa menace en exécution. Elle a tenu une veillée à la maison de la presse pour revendiquer la libération du journaliste Pape Alignan.

Pourtant, nous ne sommes pas dans une grande place, mais à la maison de la presse où des journalistes sont venus revendiquer la libération de Pape Alenyang. Vous vous posez peut-être la même question que nous, c'est quoi cette forme de lutte Ibrahim Lissafaye, membre de la CAP, répond. Ceux qui connaissent en tout cas euh, euh l'histoire de la lutte des classes ouvrières savent ce que signifie en tout cas une veillée euh, une veillée nocturne avec des bougies. Parce que ça, ça symbolise beaucoup de choses. Et quand même, je pense que le président de la République devrait quand même euh, tirer des enseignements sur ça. Et surtout se dire quand même, il est possible de rectifier le tir. Il est possible de se retrouver avec cette famille de la presse. Il est possible de se retrouver avec cette population qui pense en tout cas que l'État se braque. Non sans préciser. La demande de liberté provisoire est antérieure à l'avis de clôture du dossier. ça a le matin. et c'est dans l'après-midi, ou en tout cas c'est dans l'après-midi que le juge a délivré cet avis de clôture du dossier. il ne faut pas qu'on vienne de nous euh, raconter ici des, des, des histoires, des sonnettes ce qui est clair et net. Et nous attendons à ce que cette demande soit examinée à sa juste valeur et espérant en tout cas que l'État sera beaucoup plus réceptif par rapport à toutes les médiations enclenchées par les chefs religieux. Aux dernières nouvelles, Ibrahim Lissafaye fait savoir que le patron de Dakar Matin est dans un état très critique selon ces termes. tout pour ce bulletin d'information.

يقيني إلى الجنات ما ليس يخمد رسول كريم بيتنا سار أحمد وخاز والموت وجعل سرمدا رسول سفي في البرايا محمد المختار لا خلق مثله لا قد خدت والعود أحمد أتاني بسم الله جمت هباته بصير عبيد والأسى قبله jërë jëf ci déglu bi di jaajëfal mbokk jullit yëpp di jaajëfal auditeurs yu RFM yu rajo Futur Média di jaajëfal itam ñi saxoo saa su nekk di euh, kon kar émission yóbbalu jullit ci waxtu wi aljuma ju nekk oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax. Mamadou Omar Ba maa ngi lay fay yow itam di la nuyu te di la ziar. tey fii nga génne ko ah, gis nga ne tey de moom nii laa ko kii tout noir <laughs> tout noir. xam nga rek jamono moom. du hmm. ñàkk waxtu nekk ak fa ngay fël. waaw waaw ndax euh, li ma dégg waxkat yi di wax naan jamono ji ne ak la cay war a xew. waaw ma dégg itam. Uh, patron bi mu wayoon ko bis bu la xasaraw hmm. boobu bis dem na waaw beneen bay ñëw xamoo lu mu àndal te loolu itam muy wolof yu wér hmm. moo tax tey daal nii la xaw ma nag suba nu muy demee ah, waaw oustaz allah yaa ah, ah, jàpp na ma waaw waaw man nag li ma jaaxal bu ma jëlee ñu ne ma boobu la. ah xam nga gaa yi yenn saa dañuy suppu kànje sol rouge. waaw ànd ak bleu man li ma gën a bañ ci àddina mooy embouteillage si couleur. waaw ah, problème la de. man loolu laa gën a bañ ci àddina. da ngay sonal bëtu ñi man moom damaa bëgg bu dee bleu na bleu. waaw bu dee blanc na blanc bu dee weex bu dee bu dee vert na vert. waaw waaye bleu fii vert fii son fee hmm. dugal rouge indi sokala xëcc fee meuf. waaw Mbaye Diouf de day jël lu ko neex sol m <laughs> ki dalay xool. mais mënul ne diw lu mel nangam la sol waaw xam loolu dèjà problème la waaw tey bu doon ku mel ne mbay Diouf boo réeree mhm. buñ la dee annoncé mhm. nu ñuy waxee li nga sol ah parce que couleur yëpp a ngi ci non bi rek waaw mais mën a mën solo am na solo de oustaz yii dafa am solo xam nga solo dafa bokk ci jamono mhm. ndax yonte bi alayhi salaatu wasalaam dane woon yàlla sopp na jullit boo xam ne dafay defar jëmmam jekkal ak solam di xeeñ xet gu neex ina euh, inna laaha jamilun yuhibbul jamaal yàlla ci boppam sax dafa dafa dafa rafet tey dafa bëgg lu rafet moo tax euh, nit ku nekk euh, defaru ba jekk solu defal sa lépp bokkul du bëgg àddina waaw bëgg sa bopp la mhm. bëgg sa bopp ak bëgg àddina bokkul waaw nit ki mën na ñàkk sol mel ne man te bëgg àddina nit ki mën na solo ba mu jekk te bëggul àddina bëgg nekkul foofu lu ci nekk daal la la yàlla jox sant ko ci. yenn saa de wàññiwul dara Sénégal moom boo solo rek ñu ne patron la de xoolal yëre yu muy ah, sol. waaw sant rek. xam nga gis nga baat boobu fi mu toll nii doon na baat boo xam ne bu am solo la. Mhm. ñëpp ko bëgg a mhm. moo tax kuñ koy giiñ. waaw ah santoon yàlla rek waaw bol weddi nag ñaan waaw. waaw parce que à tout moment mën na ñëw. waaw <laughs> nekk xeetu ñaan. yàlla ñu yàlla sa def ñuy ay patron ñëpp wax amiin. amiin mu ngoog ñu ngi lay sant bu baax yow di la gërëm. macha allah di rafetlu introduction bi parce que nag euh, damay bëgg ko ma wax ne ma sañse nga waaw ah, damay bëgg ko ma koy wax loolu moom dafa bokk man ci samay ci samay ci samay bëgg-bëgg. waaw nga ah, am nit xool ma ne ma sañseeti nga wala yi ni mel. waaw waaw ah, loolu dafa bokk ci li ma neex. waaw day soxla yenn saa ñu décrire ko xam nga rajo moom. waaw ah, day am ñoo xam ne dañuy déglu mais duñ gis. duñu gis waaye képp koo xam ne daal yaa ngi sa écouteur di déglu. Mhm. nga nekk marché nga tëdd sa kaw lal nga nekk vigile. Mhm. gardien di. liggéey guddi foo mënti nekk rek. ba ci borom daral yi mu ngoog. Mhm. di déglu yóbbalu jullit jàpp ni oustaz sañ seeti na. waaw ah, sañ seeti loolu laa bëgg a dégg. waaw mu ngoog jaajëf. waaye oustaz moom niñ ko tàmbalee xaw na xaw na doy waar de. ak euh, augmentation yi ñuy nemmeeku. déjà dawalkatu oto yi xam nga buñ ne essence bi wala carburant bi yokku na rek euh, dañuy jàpp ni parfois dawal oto dawalkatu oto yi rek ñëw ci sonn. Hmm. waaye euh, ñii di jël transport en chaque jour. Hmm. di jël njaganjaay ak car yi. parfois dañ dañ koy daj parce que apprenti yi dañuy yokk paas bi automatiquement. Mhm. léegi yow augmentation bi nan nan nan nga ko jàngatee jamono ji nga xam ni njëg yëpp yokku na prix loyer bi donte ni sax février bi euh, annoncé nañ ni dañ koy wàññi wàññeeti sax laay wax. parce que ñu ko mhm. wax bëri na. Mhm. Euh, soble seeg pomme de terre bi dégg nga Ndeye Mati Dieng Mbour Hmm. nee na euh, mbir yi yokkaat na bu baax marchandise yu bëri comme ni nga ko waxee bee passé ni ñu ko évoqué. Hmm. bu yokkee fii wàññeeku fee ñu fàttee ko fee affaire yooyu mais hmm. bi yoon euh, njëgu carburant beeg yooyu ça veut dire moom kuy demati garage na nga suuraale paas bu yokk. senegal di bu yëgoon du am pétrole ak gaz. ndekam réew mu ko am dafay gën a seer. ah. <laughs> bu ñu yëgoon yem ci suñu ndoxum teen mii rek ak suñu sayaan yeeg suñu lak yi ah. doyan na de. ah euh, boobu nag jotaguñ ci ah, waaye cin bu naree neex Omar Ba bu baxee day xeeñ. waaw mhm. xam nga tey jii bu ma yenn woon bandu pétrole di ko dugal RFM xanaa bala maa dugg sax nag cóoloole xet ga gi dana dugg ci biir kër gi ñu xam ne pétrole baa ngi xeeñ yegg si na mhm. mais mi ngi ñëw feeñ na am na Sénégal wóor na mais gisuñu dara te gis nga Mamadou Omar Ba li ci pétrole bi dafam lu ko jiitu lu ñu ko jàngal. senegal kañ la commencé exploiter or phosphate. Ah. zircon yàgg na de. fa génn ci or jamaa leneen ak yeneen lan nga ma mën a tegal loxo ne ma lii senegal mi ngi ko amee ci or wala jamaa wala phosphate wala leneen wala zircon wala leneen ñaata. carrière bu xonq bii mooy xeer bu xonq bi mm-hmm. senegal bokk na ci dëkk yim gën a bëri ci Afrique. bokk na ci dëkk yi gën a bon ay tali am na réew yoo xam ne ci àll bi xam nga lu ñuy jooy mm-hmm. raaraan bu baax sax ñoom buñ ko amoon xalaatuñu sax tali ñoom jàpp nañ ne jomb na leen ñoom raaraan la ñuy yuux chaque jour nga seetaan ci télé bii déglu ci rajo bii ñuy yuux naan nañ ñu defaral suñu raaraan bi mm-hmm. xam nga ñooñu waxuñu waxi tali waaw ak Sénégal li fi nekk ci jumtuwaay boobu waaw léegi nag bu fekkee lii nga xam ne am na ba ñu ne ko nikk téye ko ak loxo li di ñëw noonu la nar demee waa kon kay amul njëriñ mooy waaja doon laaj Senghor naan ko kañ la indépendance yi jeex rek ndax bañ amagul indépendance ci la dund bi gënoon a yomb ci lañ gënoon a nekk ci jàmm nangam ak nangam indépendance ñëw dund bi gën a seer kon kañ lay jeex xam nga kon kooku wax na dëggam. waaw euh, carburant bi yokk dana am tuuti nag lu ma ciy déplorer ak euh, suñu mbokki safoor yi du caagane bu carburant bi yokkee rek paas yi dafa war a yokk. cent franc bañ cee yokk. waaw xam nga kii dawal moom amul kenn ku yor sa oto di dawal te amoo bénéfice. waa jàppal ne loo ñàkk ci sa bénéfice la. kon daa bu la nguur gi najee yow nga nañ nit ñi. kan moo ci kan moo ci am yërmande. te man li ma gën a mett ci sénégalais mooy bu ñu yokkee ñu ne nañ yokk te bu ñu mas ngaa dégg fii safar yu ne nañ dajaloo nañ wàññi passé parce que essence wàññeeku na mosoo koo dégg bi may ñëw léegi loolu laay naka lu ma ni même buñ ko yokkee chauffeur yi dinañ ànd yokk ko waaye bis buñ ko wàññee dina am ñoo xam ne dinañ taxaw fi ñu taxaw dañuy taxaw ñu taxaw parce que léegi sax boo xoolee fi mu toll nii affaire paas daanaka doon na loo xam ne fii senegal am am amu ci lu tegu ci yoon ku nekk lu la neex lu la neex ngay laaj paas muy transport yeeg car rapide ak euh, xaw ma super xëy na bis tata yii nga xam ne moom dañ leen a jox ay ticket réglementé ko. waaw c'est fixe. waaye muy kalandoo muy taxi te loolu buñ koy wax nañ commencé ci taxi lan moo tax ñu ne foofu kenn mënu koo régler ab taxi ngay jëlee fii ci Medina ne ko parcelle laa jëm mu ne la 5000. non taxi moom cher na trop Dakar. waaw léegi nag loola kon daal ñoom moom nu leen neex mën nañ koo kii daal amul problème xanaa kon ñoom yokk ñoom seen yoon nekku ci parce que ñoom naka jekk yokkoon nañ. affaire bi dafa manque d'organisation du affaire wàññi essence ak yokk essence dañu ko organiser wul Sénégal mooy dëkk boo xam ne dafay mel ni kurus gu dagg rek noonu laa ko mën a waxe lu ne jaar fu ne dara organiser wul paas yi ñuy yokk soble si euh, xaw ma leneen la nga tuddoon euh, xaw ma bi beeg. pombiteer pombiteer ak ba ci ceeb ak diw ak lu ne. Mhm. ñi ngi koy yokk. waxoon naa la fii ba ba bañ waxee waa ñu ne waaw gars yi jël nañ ay mesures mesures yi diis na ma ne dara wàññeeku. borom boutique yi ci boppam ñoom am nañ seen fulla lu leen neex la ñuy jaayee ñoom. te contrôle yi duñ ko wéyal. ban contrôle dañ koy dañ tàmbali une semaine. kayit yi ñu bindoon taf ko ci boutique yi amul benn boutique boo koy fekkati daanaka yépp dajji dañ ko sànni xam nga lan moo gën a doon gàcce ma jox la benn misaal xam nga sabu mooy oto bu taxaw ci kaw teli bi. waaw ñu ñëw sabu yaakaar naa lañ koy wax waaw moom la. ndakaaru xam nga kañ laa kañ laa ñëw Dakar 2019 laa ñëw dakaar dëkk fi ma dëkk Ouest Foire démb laa ko mës a teg bët laa mës teg bët oto buñ ko def ca fa ma dëkk man démb laa mës a teg bët oto bi koy def di wër di dem ak a ñëw ma ne ah kon Sénégal day soog a commencé lii ma ne ah fin kon jot nañ ci ndekete fi woon. mais man man kay damay laaj est que fourrière sax am na Sénégal. fourrière yi lan. furier yi ah kay gis nga oto yi nekk ci tali bi. am na de yi ñu ne pendant des années nga koy romb noonu ci trottoir bi. mais fourrière boobu ci poos yi lañ koy def parce que xam nga problème bi lan la. Hmm. Sénégal dafa am benn xawma benn système bu bu bu doy waar bu fi nekk. tey jii Mamadou Omar Ba bu defee infraction ma arrêté ko. wala ma arrêté otoom donte transporté la wala moo moom otoom bu ma arrêté oto bi xam nga lu ñuy lijjanteem kuy borom oto bi oto yi ñu gaare fii ci parking bii kuy borom oto yi nekk ci garage bii yii nga xam ne 1902 ba tey dawul kuy boroom bu dee kay borom kilifa gi la kooka lañuy ñuy jéem a lijjanti kan la xool nu mu def ak ñoom. après oto bi di wéy di fa nekk. day wéy di fa nekk. Amadou Sabar ba ñaata yoon ngay taxaw fii ci tali bi ab oto romb la te boo ko laajee visite technique mu jox la ko kan moo ko def fu jaar ba am visite technique man sama oto bii ma yor tey sama pare bu fettoon tuuti rek bu ma demee ñu dàq ma nga gis oto boo xam ne pare bi kol nañ ko fu ne amul rétroviseur ginnaaw gi moom daa mel ne lënd mu wax set rek dara takkul mu yor visite technique bu bees tàq boo xam ne tey la ko def moom. ah yéeme na na waa trop loolu moom jar na enquête. waa léegi nag loolu mën naa ànd réew muy dox loolu ña na koy def moo tax bu ma gisee président taxaw fëgg dënnam yëf yi moom dina dox dana jaar ci yoon nga xool yenn affaire yi ree dalay jàpp da nga naa waa kii moom euh, ban réew lay wax <laughs> fan lay doxee fan lay jaare ci yoon. da ngay gestu gis loo xam ne te te xam nga lu ko gën a suuxat ñi war a defar ñoom ñooy yàq. waaw ñi war a jubbanti ñoom ñooy dëngal. bu fekkee yow mi nga xam ne yow yaay Mamadou Omar Ba yow laa teg ci tali ngay ab takk der yaa xam police nga wala gendarme nga lan laa la fa tege muy oto bu def infraction nangam nangama ci war loo def rek am na sanction bu ci war loolu lépp code code bi bind na ko ba teg léegi man bu ma defee infraction yow damaa jëlale man sëfoor bi nga xam ne man maa ñàkk jom ñëw naan juum naa mais maa ngi lay ñaan njekk waaye yow mi nga xam ne yaa ma war a teg ci yoon yaay njëkk xool lijjanti nu ma def ak yow man dund keneen ak keneen dund na ko waa léegi nag bu boobaa man Mamor Mbacke bu fekkee man buñ ma laajee permis ma joxe ñu ne ma visite technique ma joxe. assurance ak laaj ma assurance ma joxe. vitre teinte man dañ ma koy laaj ma génn kayit bi joxe dootee force ñu ne waaye nangam xool nuñ def yow ba daaneel la bu ëllëgee xam nga lu may wax dama naan kayit yi kay kon jëru ko. bu ma amul tamit comme man bu ma amee kayit yu matit du da dañ ma daaneel bu benn waaye def na ma ko fii yàggul <laughs> semaine ba li passé mu laaj ma lépp mu jox ma ne waaye du tee bu ma la bëggee jàpp mën naa laa jàpp. Ah. ma ne ko ci lan mu ne ma nangam ak nangam ak na wax wax ma yoo xam man sax comprendre uma génne théorie. génne ay théorie yeneen teg ma ne ko waa kon lii est-ce que jar na man këyit yi ma sonn man assurance dong at laa koy dagg musuma dagg ay weer ma ne ko est-ce que kon këyit yi ma sonn di muti ko est-ce na ko est-ce que du toog sama kër jël sama weccet def sama poos fuñ ma arrêté ma joxe aw kayit dem sama yoon ma ne ko lii nag mooy yàq réew mi te ñi ko war a jubbanti ñoo koy dëngal kilifa yee ca kaw itam ñoom ñi war a soññ ñi koy jubbanti talu ñu leen moo tax yokkateb essence ak yokkateb gaasuwaal ak loolu lépp dafay firndeel ba tey rek ne réew mii di Sénégal stable stable balagul tegoogul ci yoon wi nga xam ne moom dañ bëgg mu tego fi tey lii moo yokk te pourtant li ma gën a jaaxal day mooy jamono ji ñuy wax yokkute pourtant jamono jooju débat bi ci politique wàññite la woon. waaw. yooyu. waaw nan la ñuy toogee débat boo xam ne ab sedd lañ ciy waxtaan ñu jékki-jékki rek affaire bi commencé sensé ñu ne tàngoor wi la ñuy waxtaanee mais kañ la kañ climat bi sensé. Ah, mën am ay jamono joo xam ne ñëpp wàññite lañ doon wax ci dund bi wàññite location taxi yi ñuy teg nangam nangam ak nangam yu kenn xamul. jékki-jékki xëy-xëy ñu naan lii yokk na lee yokk na lee yokk na te la ñuy wax ne yokk na bokk na ci li nga xam ne senegal dafa wax ne moom gis na ko am na ko te am na ci lu doy xanaa bu dul dara pétrole ak gaz bi euh, Mamadou Omar Ba génnagul waaw waaye xanaa Sénégal <laughs> lu mu bon bon am na contrat yu mu yu mu jot a signé ci wàllu exploitation mhm. xanaa loola war naa am lu ci dugg am mbaqus boo xam ne lu mu bon bon ñun danañ ko yëgandi xéewal yi en attendant muy ñëw comme ni nga ko waxee rek waroon na xëy neex de waroon na xëy neex mais xeeñul neex te li nga xam ne jaar na fi am na fi ñu koy exploité di ko sëf ci ay avion muy tiim Sénégal di naaw génn dem bitim réew waaw bu bu bu pétrole ak gaz bi mel nii kay ñun daanaka nañ ci nañ ci dégg doy rek lii lii olof yi naan nañ ci dégg doy bu boobaa nañ ci dégg doy ndax daanaka amalu ñu njariñ léeg-léeg des fois da ngay laaj naan gars yi fi ñuy waxee Sénégal gi ñuy wax ak man Sénégal gii ma toog est-ce que genn Sénégal gi la est-ce yi amuñu geneen Sénégal gu ñu gu ñuy wax gu bokkut ak gi ñu nekk parce que li ñuy wax ak li am ci réew mi c'est diamétralement opposé malheureusement nag nit ñi talatuñ dara état bi gis nga Mamadou Omar Ba ma wax la dëgg joo xam ne kenn du ko wetti ku la ko wax ku la ko waxute ci yem état bi talut a contrôler liy dox ci réew mi parce que débat politique moo ñu sonal de mënuñoo nekk ci débat politique yi cent pour cent matin et soir. ba pare di contrôler doxinu réew mi mënul nekk. occupé na lépp lépp lépp. muy président bi muy ñi mu fal muy ñi bëgg a falu kenn ku nekk yaa ngi ci say calcul politique sa xel mépp sa suba ak sa ngoon sa itte jëpp ca ko def waaw kooku mën naa doxal am réew mais nañu tar réew mi te dimbale ñoo politique bi nga xam ne amaluñu njariñ jëmalewul fenn Sénégal 1960 ba tey Sénégal a ngi politique. politicien bu ne jaar na fi bu doon xereñ ci politique dong man a politique mooy tax Sénégal dox Senghor dana yóbbu Sénégal naataange maanaam Sénégal dana émerger ci jamonoy Senghor wala mu émerger ci jamonoy Abdou Diouf wala mu émerger ci jamonoy Cheikh Anta Diop wala mu émerger ci jamonoy Ngalandou juuf wala keneen keneen wala mu émerger ci jamonoy Ablaye waat mais politique taxul Sénégal jëm kanam politique bi ñu soxla muy politique économie politique bi nga xam ne. mooy tax ñu lekk politique bii tax ñu naan politique bii tax ku bëgg a faju faju politique ci wàllug santé politique ci wàllug l'éducation ñi war a jàng-jàng politique ci wàllug dundin wu dal nit ñi am jàmm nekk ci jàmm politique ci yooyu la ñu soxla mais pas politique ci nu may def ba folli la ak nu may def ba falu foofu la ñu moo tax kon keroog bi ma waxee ni bu ma déggee ñu naan sénégalais yeewu nañ yeewu nañ fi mu toon kenn mënatu leen a nax te subaa ngoon ñi ngi daar daar yi topp ci ginnaaw ay politique seeni lambar lambar yi man ne ñan ñoo yeewu ñii hmm. ñii ñoo yeewu kon de jamono ji ñuy nelaw musiba amoon na yéeme na de euh, ba rapport cour de comptes bi xam nga euh, koppar gu bëri lañ ci wax luubal nañ ko mhm. Euh, ñu ngi ci ba léegi euh, premier ministre waxtaanoon nag euh, waa société civile gannaaw seen manifestation bi ñu fi defoon. Mhm. waxtaan ak ñoom dalal seen xel ne leen ay poursuite judiciaire dina am maanaam mbir yi amaana ñu yóbbu ko ci ci yoon. Mhm. ministre de la justice sànq dañ ko invité RTS. Mhm. Euh, ci benn émission moom itam àdduna ci mhm. euh, wax foofu lu lu doy waar ndaxte nee na mhm. haute de justice bi nga xam ni moo war a àtte wala moo yeyoo àtte ministre yeeg ñu xeetoog ñooñu mhm. nee na daanaka day impossible ñu activer ko ba pare mu teg ci ne euh, wala sax xaw a ŋàññ liggéeyu cour des comptes ci ci ci rapport bu mu def waaye nee na njiitu réew mi Euh, ne daal dina fexe ba comptable ak gestionnaire yi nga xam ne laale nañ ci mbir mi. ba mhm. yoon àtte leen. Mhm. wala yoon woolu leen déglu leen. Mhm. léegi oustaz jamono ji euh, rapport cour des comptes yi bëri na coow lool. bëri na ay manifestation Yewwi Askan Wi sax bëggoon na amal manifestation aljuma ji weesu ñu tere ko ko place de la nation. parce que préfet bi nee na liggéeyu BRT bee ko waral. ak machine ya fa nekk euh, day tardé liggéey beeg yooyu. yow am nga yaakaar ci mbir antu wala egg justice ba ñu woolu ci kilifa yu mag surtout. Mhm. ah lool kay wax dëgg yàlla ko ci am yaakaar it euh, da ngaa yàlla ba yëf yi ne càpp nee nañ haute cour de justice moo leen mën a àtte ministère de la justice ni haute cour de justice c'est impossible. ñu réactiver ko ñu réactiver ko waaw bi jeex na. mais loolu est-ce que moom. loolu kay mooy ñi lekk cërëm la sax. cërëm la moom mi nga xam ni daanaka moo nekk ci kaw procureur procureur mi nga xam ni moo war a. woolu ñëw en tout cas de mooy ministère de la justice. waaw ko waxee. mooy kilifa procureur siis yeeg cour d'appel ak yooyu ñëpp mooy seen kilifa. loolu ma ni est-ce que yayoo na wax loolu est-ce que ko sax wax. mais est-ce que jàpp mais mais jàpp nga ne ko wax. nga wolof da nga yaakaar dañ ko wax loo. ah moom ministère de la kan mooy kilifaam. ah xanaa njiitu réew ñu ko tabb. mais bu neexoon njiiti réew mi suba suba suba suba mu wàcce ko. waaw kon dalay wóor ne amul kenn ci ñoom kuy wax lu neexul njiitu réew ma ko fal. décision état la. ki ko wax du n'importe qui ministère de la justice la. xam nga man lan moo ma ci gën a jaaxal. xam nga toog naa fii wax ko. xaw ma yaa ngi koy fàttali comme déet ma ne ba ci ay tappale naree dugg. Mm. mooy ba ñu gëmloo ne haute cour de justice ñoo leen war a àtte. ministre yeeg yooyu te pour l'instant amu fi. waa léegi man man man soxla naa ko mel ne Daouda Mine wala ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu yoon ñu man ñu leeral ma affaire bi seen après mais président de la république la woon Sénégal a ko àtte fii condamné ko. waaw en tant que ancien président de la république. waaw mais moom juridiction internationale daanaka moo ko condamné maanaam fii lañ ko àtte waaye mais mais man li ma bëgg a xam mooy justice su Sénégal bii waaw non xarañ nañ kay moom xarañ maanaam nan lañ mën a dugale ci suñuy bopp ne amuñu compétence su àtte ay ministère non am nañ ko kay xam nga njiitu réew mi moom dafa dafa euh, xaw ma loolu erreur de communication la woon xaw ma regretté na ko xaw ma regretté wu ko mais benn bés toog na fi mhm. ne am na rapport yu bëri yiñ génne ñiñ épinglé waaye maa ci teg sama conc waaw Euh, te boo fàttalikoo fan yi weesu rek Mimi Touré xam nga déclaré na candidature daa daal di ci ay waxaale ne tey jii koo xam ne dafa def wala nangam ak nangam ñu ne buñ ko jàppee dëkk bi tàkk dañuy bàyyi ñu dem jàppe ko nee na déedéet dama ciy teg sama loxo waaw loolu est-ce que bu doon tey dina ko wax yaakaaruma ne dana ko wax ndax booba gis nga wax jooju bi mu ko waxee hmm. li nga wax ak li ma wax nii même pied d'égalité bi ñu doon wax puus na justice ñëpp la fi nekkal amul amul xejj ak seen puus na siis siis ñaari tànk lay doxee amatul léegi kon wane ne kon justice am na fa mu fa mu sañ a dugg. Mhm. maanaam daal am na comme sañ a jàpp waaye am na koo xam ne sañu koo jàpp waaye la ci gën a doy waar wax ji boo ko jàngatee da nga ci déggaale ne ndekete ko moom moo leen di conditionné kon séparation des pouvoirs yi wax la may amul. parce que moom président moom bu taxawee wax ne dossier boo xam ne. justice moo ko yore mu teg ci loxoom kon kay mooy manipuler justice koo xam ne tey bu demoon di ko jàpp réew mi mën naa takk wala nangam ak nangam mu ne bu leen ko jàpp waaw kon kay kooku mooy manipuler justice waaye kon ana séparation des pouvoirs ñu doon wax. daanaka amul de te. gis nga bi bi ni ko wolof yi di wax bi Sénégal santé Ndiaye ba fii may wax ak yow. waaw erreur yi nga xam ne gouvernement bu Macky Sall def nañ ko mësul am ci benn gouvernement. du ci xawma 40 ans Senghor yi wala 20 ans Abdou Diouf yi wala 12 ans Abdoulaye Wade yi kenn mës a def erreur communication yi nga xam ne def na ko yooyu nag li muy yàq dafay bëri erreur di communication boobu dem na ba tey jii ñoom lu ñu liggéey def ko muy lu ñu mën a teg loxo pour mu feeñ day jafe parce que tey jii comme par exemple ma wax la yemul ci moom président Macky Sall ba ci ay jëwrinam bi ñu tabaxee autoroute Ila Touba bii Sénégal yépp di ko tàccu mu doon liggéey bu rëy bu ñëpp rafet rafetlu ñu xëy un bon jour benn directeur Dakar dem dikk Moussa Diop taxaw ne wax ne xaw ma euh, euh, murid yi bu ñu woteelu Macky Sall ñu dajji Ila Touba bi yóbbu ko Ila Fouta léegi liggéey ba yàqu na loolu moom malgré infrastructure bi ni mu amee doole ak li mu amee solo ci wàllu koom-koom mais kaddu gu ñaaw tax na jëf jooju yàqu waa léegi yu mel noonu ba kañ dugg ci sistis dugg ci wàllu ngëm-ngëm dugg ci nangam dugg ci nangam ba kañ lii nag problème bi moo tax ku jege président Macky Sall na ko wax ne ko du question ñàkk liggéey moo tax sénégalais yi mere ko déedéet lañ ko meree li ci ëpp ci communication la mm-hmm. li ci ëpp ci baat yu ñuy dégg la te ñu jàpp ne ah ci yoon day wartoon a demee noonu wala waruñ ko war a waxee noonu wala waruñ ko war a déggee noonu li ëpp ci nit ñi loolu moo tax ñu mere ko. Mhm. mais mais seetluwoo ci ci fin bi nii euh, surtout ci at yi euh, mandaawam di waaj a jeex lu bëri mi ngi feeñ rapport cour de comptes déjà ak euh, xam nga dañ doon wax am na moom ci boppam da ko wax comme ni mu la ko waxee léegi am na rapport yoo xam ne moo ci teg concom ak yooyu Mimi Touré dafa déclaré kan Mimi Touré jóge na jóge na ci pouvoir en nekkatul ci pouvoir bi. <laughs> déclaré candidature am euh, ne euh, candidate la ci présidentielle yi di ñëw. 2024 waaw. ay fan lañ ci teg IGE génne ab rapport ne Mimi Touré mii ndeke bi mu juutee bi mu jiite CESE. Euh, muy conseil économique social environnemental environnemental. Mhm. dañ ko épinglé ci koppar gu bëri luy mat wala lu ëpp deux milliards. Mhm. te rapport bi finalisé woon nañ ko mais deux mille vingt deux yaa ngi fàttaliku élection législative yi mu ngi amoon. Mhm. Euh, juillet côté yooyu. Mhm. mu nekk tête de liste benn. te booba rapport bi génn na ba pare génn na ba ñu mais. bi mu ah. déclaré candidature moom léegi lañ koy génne yow loolu nan nga ko mën a jàngate maanaam boo boo féetee ci man yow loo def garaawul <laughs> ni ma ni ma ko jàngate kay mooy li ñu doon wax léegi waaw maanaam yëf yi dafa mel ne euh, li Ismaïla Madior Fall doon wax dafay mel ne waa ji daal dafa yor ab sisoom boo nangee ñëw dugg ci kër gi mu daggal la ba nga doyal nga sol boo ne doo dugg ci kër gi nag mu xotti sa mbubb ah, si so ba mu la waroon a daggalee nga sol ca lay xottee sa mbubb euh, Aminata Touré yaakaar naa ne rapport ba ko épinglé dafa am leneen lu ci gën a doy waat sax lu ci feeñ mooy bi Macky waxee loolu rapport bi génn épinglé Aminata Touré ñu ko ba tey jii mu génn ne moom day dem war na ginnaaw nguur gi mm-hmm. ñu ne dañ koy topp waa waaw moo kan man de xanaa damaa yaakaar ne xanaa xel xalaatul suba wala ginnaaw suba ñu woo Aminata Touré ci yoon ne dañ koy déglu te dégluwuñ Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moo doon ministère de la santé ah. jamono ji nga xam ne ci la Covid bi scandale yi di am te dégluwuñu Mansour Faye. te loolu mooy vrai débat te dégluwuñu keneen ak loolu mooy vrai ah, xanaa mu oustaz affaire am stratégie de. dara day génn ñëpp concentré wu ci dara. ñu jékki am lu xew fële. Ah, ñi ñi détourné seen parce que loolu mooy système politique gu Sénégal te ñu bëri ñun yeewooguñ ci loolu. te état loolu mooy fooram. technique la de. technique la bu ah. garaaw. Mhm. mooy tey jii gaa yi di coow benn affaire bari kii jékki-jékki rek waaye saa yi xool leen oto bee ma ngay bëgg a xalangu di. ne ñëpp tourné ca loola di ca commentaire. Mhm. yow nga nekk ca la nga nekkoon di nga euh, yaakaar naa ci jamonoy ndaw dañ jay jékki-jékki ne la téenal nga téen xool. ñu fi tax la. Mhm. di la nax état foofu la toll ak ñun. muy téenal xool <laughs> nga téen <laughs> mu ne la xaw ma lan jaar na fi jàll. léegi nag euh, loolu lépp li muy tegtale mooy day wane ne kon ñoraguñ ci wàllu politique. Mm-hmm. mais bu ñu bàyyi surtout loolu. non bu ñu bàyyi musiba parce que ñoom loolu la bëgg. waaw li ñu bëgg mooy ñun ñu bàyyi. Mm-hmm. wala ñu ñàkk xam. wala ñu gëlëm. wala ñu découragé wala ñu gedd bàyyi. Mm-hmm. ñoom loolu mooy seen fort. mais ñun suñu fort dafa gaaw gedd dafa gaaw fàtte. loolu tax ma ni buñ bàyyi fàtte googu nag moom suñu cër la xam nga mën na yàgg nga dem ba si yàgg xeex bi ñu ci doon def manifestation nga dem par benn nit wala ñu bàyyi affaire bi gis nga Mamadou Omar zéro nii nii nii ay milliards dem ci zéro sénégalais bu la meree bañ la jàppal ne meree wala bañu la suba mën naa doon ki la gën a bëgg gis nga tey bu la toppee tey jii jàpp mooy ki la gën a bëgg bëggu la de suba mën naa doon ki la gën a bañ gis nga ab sénégalais bu la dogalee tubay bay boo nga wut sax ngemb teg ci wet gi te xam ne à tout moment mën na leen li sama tubay mooy ku mu dogal tubay ngemb laa lay xaar mhm. yu mel noonu nag bu demee ba suñu état yi xam ko xam ne nit ñi daanaka seen ngëm-ngëm bëriwul xam ne luñ dugg duñ ca sori xam ne mënuñoo maintenir benn bataay mais état day def li mu bëgg a def xam na ne lii bu ma ko defee coow li dana bëri mais du mujj fen day mujj rek ci ay débat ci ay eh, réseaux sociaux lay mujj ci ay yu kenn xamul yu ñàkk fayda mais état da koy def parce que moom loolu mooy fooram fi nga koy séntu moom ak fa mu nekk dafa bokkul la nga jàpp ne loolu la état di def ak la muy def dafa bokkul lu doy waar laa lay wax ci mhm. stratégie état bëri waa na ko nekk ci biir état bi nekk ci coow wala deal wala complot wala lu mën di doon moom mi ci bokk sax xamul mhm. affaire bi ni muy doxee affaire bi kumpa ci moom. Mhm. te pourtant moom ci la. waaw ku nekk dafa am rang boo yem rek. ak li nga mu ngóog am na koo xam ni nit mën na laa gën a suufee xam loo xamul ci yëf yi mhm. ba tey bu la ko waxoon nga ne ko ba mu fontoo bu doon dëgg ma xam ko. waaw yooyu yëpp day am <laughs> ak ay yu bari yoo xam ne man xam naa ko ci wàllug état mhm. waa léegi nag loolu état bu ko peegee moom ci wàllug système ci wàllug stratégie ci wàllug euh, xereñ. ci wàllug doole ci wàllug mën a mën a signal gos jàdd droite mën a maîtriser aw askanam. Mhm. surtout loolu loolu laa la wax. parce que dañ ñoo xam. dañ ñoo xam. waaw mën a xam ne tey jii boo ne cuq lii nangam coow lii dana bëri manifestation bi débat yi télé yi rajo yi trois jours day mel ne benn événement màggal wala gàmmu bu doon actualité def nañ ko ba ca suba ga na nit ñay jàll ci leneen. lay mel ne noonu lay demee événement lay doon rek Sénégal lépp événement la. dañ ciy wax wax ci wax ci wax ci après. Eh, xaw ma lan bien mal ak bi eh, xaw ma événement la woon. waaw boobu passé na. Mhm. Eh, xaw ma dossier Ndiaga Diouf Barthélémy Dias événement la woon événement boobu passé la Khalifa Sall caisse d'avance événement la woon. événement bi passé na dossier Ndiaga bi heure bi ñu ko génnee. maanaam dañ koy wékk fenn. moo lay xamal ne état état état daf ñoo maîtriser. <laughs> l'état daf ñëw maîtriser ba pare nag xam nga lu la waay lu waay mën a wax it gis nga Mamadou Omar Ba coow lee bari rek mais gis nga suñu opposition bii amul kenn ko ci ñeme ah, xam nga loolu koy xamal. Mhm. yenn sacrifice duñ ko mas a def ci àdduna. coow lay bari rek waaye bu nee rëg-rëg ku nekk dugg ci ruqam ñun sénégalais kay ñun kay ñoo ci sonn te pourtant <laughs> xam nga lu ñuy gëmloo mm-hmm. yow bol bokk ci xeex bi yow dañ laa soxla yow la kilifa gi nangam mm-hmm. nga dem làqatu doo ca de say doom yi leen ci sama wet mm-hmm. say jabar yi leen ci sama wet kuy sama nijaay wala sama bàjjan toogal sa kër réew mi day yëngu waa ah, léegi nag Mamor Mbacke mi amul fayda Mamadou Omar Ba mi ngi mi nga xam ne moom xëy na lu lu lu jóg yóbbaale ko ñoom nag ñooy jóg man ci laa xam ne suñu opposition yi ñemewuñu état yi muy état bu mu ci man di doon mas ngaa dégg manifestation opposant bu ci bu ci gaañu bu ñu xam wala bu ci blessé wala bu ci bàjjanam wala nijaayam wala rakkam wala doomam blessé man di déggaguma ko ci histoire senegal xëy na dama ko yëgagul waa lu xew te façon xeex bu ne am na fi kon liñ ñuy gëmloo ak au la nekk ci biir dafa bokkul opposant bi lim xam ci état moom man cee teg tànkam xam famille yem ki nekk ci kanamam wala ci ginnaawam di xeex amul amul xam-xam boobu moom day telli telli rek mën ngaa toog yow di leader bi gis sa benn militant di def wala muy wax loo xam ne yow mi leader bi xalaatoo ko def xalaatoo ko wax parce que xam nga gravité ba ca nekk wala la la ca mën a fekk ci yoon waa léegi nag bu boobaa ñun dafa mel dañoo dugal ci benn bërigo wëndeel ñoo wëndeel wëndeela wëndeel wëndeel ba ñu xiir ñu teg ñu ku wëndeelu ba xiir boo ko taxawloo nu muy def. du xam fu mu jëm du xam fu mu jëm. da ngay jékki-jékki mel ne suuf si daa jëm kaw nga naan fu ma jëm fekk yow ki la sacrifié moom mi ngi ci jàmmam te loolu lépp nag système politique gu Sénégal la waxuma état waxuma opposition politique gu Sénégal laa wax noonu lay doxe loolu nag li feek ñun tooguñu ba am xam-xam bi xam ko xam ne stratégie état mooy. itteem mooy du fi jóg xam ne stratégie opposant mooy itteem mooy na fi toog te bu fi toogee bu mu fi jóg waaye ñun suñu stratégie lan la est-ce que foofu amul point d'interrogation. am na kay ñun di faleek folli rek xam naa ni daal li jar a xeex te loo xam ni boo génnee ci tali bi yow xam nga ni sa bopp nga génnal sa koppar nga génnal mooy rapport Cour de comptes loolu génnaloo benn politicien génnaloo. benn dirigeant benn directeur yow sa bopp nga génnal parce que ah. say koppar la mhm. looloo jar a xeex léegi nag euh, dafa am benn auteur français mhm. Oscar Wilde lay wuyo mhm. moo doon wax lu am solo mu ne si l'état est fort il nous écrase si les faibles nous périssons maanaam état bu amee doole trop trop trop gaañ ay citoyens yom waaye bu faible trop trop trop itam da leen di gaañ parce que du ko mën a taxawal wala du ko mën a teewal moo tax état dooleem defe naa du citoyen la ko wan a la ko war a wan mais dooleem ci gestion naka la naka lay defee ba ñi muy jiite ñu nekk à l'aise mhm. yamale dooleem foofu defe naa noonu la ko war a kii léegi nag xam nga sax loolu lu ci gën a garaaw mhm. xam nga yaa ngi wax état ak doolee état mhm. kan mooy kan mooy doolee état boo jëloon gouvernement bi teg nee 17 millions wala 18 millions sénégalais yi waaw nga génne leen senegal état bi rekk des fi ban force lañu amuñ force kay c'est le kon kay doole état nit ñi la. dooley jën ndox. waaw bu état amee doole ñi may nguuru ci seen kaw tey bu ministre wala président ne càpp ci tëli bii Mamadou Omar Ba en tant que journaliste da ngay wàcc. Mamor Mbacke oustaz ak imaam ak wàccal tëli bi. xalif généraux bi wàccal tëli bi. ministre beeg mécanicien beeg jaaykatu laax bi wàccal tëli bi. yow mi doon xëy liggéey loo yàkkamti yàkkamti docteur beek yëpp wàccal tali mais loolu moo tax état am doole mais bu demoon ba ñooñu nekkanduñu nekkandoowuñu ak moom ci tali bi moom kese ak tali bi est-ce que dina soxla ay motaar yu koy kii yàlla ak moytu leen ak nangam mais dooley jën ndox mais dooley état askan wi muy falu ci seen kaw la mais kon kay état amul doole askan wi ñoo am doole tubaab yi buñ ñu bëgg a gëm loo ne état dafa am doole état amul doole lan mooy état définition état mooy lan kan mooy état. kan lañ mën a teg loxo ne kii mooy état institution lañu wax mais état mooy askan wi jël ay nit teg ci kaw ba ñu am sañ-sañu di def ak di dindi ñooñu ñooy état. man loolu laa xam nga ñoom euh, avant ñuy ñëw ci xam naa il faut ñu àddu aussi ci ci accident deux yi avant ñuy jeexal ak euh, yi ñuy provoqué ci talibi bi douze minutes rek moo ñu dese. Mhm. ñu ñu am lu ñu tënk rek lu ndaw. Mhm. Euh, parce que politiciens yi ñoom. dafa mel ni dañoo nànd suñu ñun ñun askan wi ni ñuy xalaatee. ah ndaxte yow boo bëggee nekk politicien yow tey nga bëgg am doole. Mm-hmm. il suffit nga nekk ci pouvoir bi. nekk ci pouvoir bi quelque temps di kaas wala jékki-jékki rek xaw a féete ci askan wi. Mm-hmm. njiitu réew mi wala keneen kiy diriger wala ki la fal mere la. Mm-hmm. nga nekk victime nga démissionné nga dem feneen. ça veut dire que maanaam yow victimisation boobu ngay def. sénégalais moom buggul koo xam ne dañ koy néewal doole seetlu rek ñi fi jot a romb ñépp muy ba ci ba ci njiitu réew mi ci boppam <laughs> impression boobu ngay am dafa nekkoon ak Ablaye Wade ba si yàgg jékki-jékki mel ni kuñ ci néewal doole bundu mhm. xataal mu mhm. génn ci victimiser mhm. wu après ñëw euh, opposition bi xaw a boycotté euh, kii euh, campagne électorale yi moom mu dem campagne yi mu ko mu ngoog mu dem campagne boo xoolee itam Sonko fi mu nekkoon peut-être directeur des impôts dëgg la ni mu fa nekkee woon. Hmm. Euh, peut-être euh, di dund dund bu baax rek comme ñëpp. comme ñëpp ñoo fa nekk. waaw li mu fa gis ak niñ koy diriger. neexu hmm. ko. Hmm. mu génn euh, Aminata Touré tamit. bi mu nekkee pouvoir bi. maanaam affaire bi daal dafa mel ni loolu boo ko defee dañ lay yërëm de. gis nga victimisé wu googu son googu Macky Sall defoon 2012 ba falu. Mhm. nit ñi bëgg ko fal ko. moom la Ousmane Sonko def nit ñi topp ko. moom la Aminata Touré def. ña ko bañoon démb commencé di ko bëgg. Mhm. moo lay xamal ne ñii. Khalifa Sall ak fi mu génn. Khalifa Sall ak fi mu jaar. Mhm. ñii dañuy nax nit ñi. stratégie bu baax la de ma ñuy dox. ah waa léegi nag comme sénégalais yi ñoom ñee am nañ seeni stratégie lan laa fi wax léegi daaneel état am na téeméeri junniy stratégie ak lu topp. opposition am na téeméeri junniy stratégie ak lu topp ma laaj la léegi man ne la ñun luy suñu stratégie ñun. ñun suñu stratégie lépp état xam na ko opposition bi xam nañ ko mooy bu ma bëggee ngeen ànd ak man yërëm naa fexe ba ngeen yërëm ma. waaw jaral na ma sax man ma tooñ ñu sanctionné ma pour ngeen yërëm ma. waa léegi nag loolu ba kañ laa wax moom laa wax léegi loolu ba kañ ndax loolu mën naa jëmale kanam am réew diw laa yërëm xaaral ma fal ko. Sénégal man man dama dama am problème xam nga ban problème laa am. opposition bii ma fi gis man gisuma ci kenn koo xam ne ñi ngi la topp wala bëgg laa fal wala euh, sopp la ci programme bu leer bu rafet boo teg man de wax dëgg yàlla bu dee dëgg rek a tax may wax mm. gisuma ko xam nga lu ma gisam kuñ jàpp ne dañ koy néewal doole ñu jóg ne dañ koy xeexal kuñ jàpp ne dañ koo tooñ ñu jóg ne nañ ko bàyyi kuñ jàpp ne dañ koo xañ àqam ñu jóg ne nañ ko fal président waaye gisuma ci kuñ ne diwkat doy na ma parce que programme bii mu teg rek laa mën a jàpp ne moo mën a jëmale sana kanam Sénégal. waaw peut-être majeure partie bi kiiwu ñu ko mais euh, ki ma gis daal kenn mu xaw a def lu mel noonu mooy Ousmane Sonko ak euh, livre bi mu génnee solution. solution mu ngoog tënk na ci loo lu bëri loo xam ni peut-être bu ñu ko jëfewee dina doxal réew mi kanam. ci oppo ci opposant yëpp nag. ak it ku mel ne Thierno Alassane Sall. Thierno Alassane Sall waaw. waaw ah, ko fàtte moom itam waaw waaw. léegi malheureusement ñun sénégalais te pourtant gis nga livre boobu Ousmane Sonko bin muy solution defal micro trottoir waa sénégalais nga laaj leen. loolu laa bëggoon wax jërëjëf. génnal ci tali bi nga jor sa micro laaj sénégalais yi micro euh, euh, téere solution am na ñoo xam dañ naan luy loolu. Mm. mënuñu laa wax lu ca nekk. liiruñ ko sax. xam nga ñu ko liir. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci doxinu réew mi nekk ci système bi xam ni muy doxee. ñooñu ñoo ko liir mais sénégalais man liiruma ko keneen liiru ko keneen liiru ko xamuñu lu ca nekk waaw façon politique boobu itam ba tey ndax am na njëriñ Sonko lam ca bëggoon ba mu ko bindee mooy lii dugg ci bopp sénégalais yépp buñ koy bëgg itam bëgg ko ngir loolu. bëgg ko ngir loolu. waaw mais malheureusement ba mu bindee livre boobu di solution. Mm-hmm. sénégalais yëpp jóguñ taxaw ne ko yaa fi ne kon yaa war a falu de. waaw dañoo xaar ba problème am. Mm-hmm. bañ jàpp ne tooñ nañ ko ñu soog a jóg ne ko yaa war a falu. ci convocation beeg yooyu ak. li ci xew lii laa wax ne nag. Hmm, saba kii déggal Mamadou Omar Ba yaa xayti kañ lañuy ñuy jëmale kanam. Hmm. Euh, xam naa dañuy kii euh, Ibrahima Diame yónnee na ma fi ay question mais euh, comme que dinaa fi dellu si laata éphéméride bi. waaw avant may tàmbali éphéméride bi waaw ñu ñu ñu laal ko tuuti. Mm-hmm. li ko waral mooy dama bëggoon ñu aborder. Euh, yenn saa li ñu gis ci tali bi mhm. mooy euh, deux roues yi. Mhm. ak ak seeni doxalin. Mhm. Euh, parfois ak accident yu ci am yow loolu nan nga ko jàngalee njàngatee yow mii nga xam da ngay. fréquenté ci tey jii la xaw ma démb. waaw bi am fii ci VDN bi. waaw démb la defe naa. baa xam nga ne am na soog boo xam ne daanaka mën naa ne ci sama kanam la la xewe ah. mooy taximaan bi defoon sens interdit ci VDN 3 bi. waaw man mii tase naa ak moom. bi ma wàccee pon Cambérène bi. loolu yàgg na. yàggul fan yi passé ah, ci semaine bi waaw bi ma wàccee pont Cambérène bi laa tase ak taximaan bi ci voie allée bi moom moo nekk ci di def retour mais booba maa ngi daw mënumaa taxaw moom itam mi ngi daw ki ma nekkaloon ci oto bi sëñ Moustapha Gueye laa ne ko oto bii de wallaahi alxasim balaa yegg fa mu jëm dana def soog mu ne ma sëñ bi ma ne ko yàlla xam na ne day def soog. mais ma ne ko parce que voie bii mu jaar. waaw VTS lañ fiy dawee amul doo daan amul dara VDN prononcé bi amul daan mm-hmm. amul dara ba pare moom mu def sens interdit di ñëw malheureusement ab taxi ni moom la taseel moom moo faatu ci saasa oh. borom taximaan bi mu taseel bi muy expliqué nee na moom daal dafa dawal ba mu jàkk jékki-jékki dégg teel nee na xamul sax fu teel li ci jóge parce que oto bi mu jàkkaarloo la mbëkkante mm-hmm. xam nga foofu booy daw doo sóoraale oto boo jàkkaarloo mm-hmm. parce que faa am mais nga jàkkaarloog oto man ngaa jàkkaarloog oto jàpp ne day daw da ngaa topp ci ginnaaw nee na moom teel ji rek la dégg waa ji fala faatu faatoo ma ne lii bu demee en tant que taximan di ko def te lii moom man maa ci teg sama bët taximan bi laa rombanteel nii jëm géejawaay moom muy ñëw jaar ci voie bi nga xam ne man ci laa jaar di dem moom ci la jaar di dëpp ma ne sëñ bi kii day def soog man mënuma ci dara parce que rombante nañ mi ngi daw lu bëri maa ngi daw lu bëri maa ngay dem moom mi ngi ñëw loo ci man man bu ma ko teeloon a gis dinaa def samay système fexe ba taxawloo oto yi ci tëli bi moom mu xool nu mu def bu dee day def demi tour mais duma ko bàyyi muy continuer mais mënuma ci dara parce que rombante nañ fiif ku ne dem malheureusement bi ma agsee ci guddi gi mhm. ci laa xool ci Seneweb ak journaux yi gis ñoon eh, effectivement accidenté am na ba faatu na ma ne lii nag waaw sens interdit moom ci. ak ki ko def bu doon man Mame Mor Mbacke mu mu xamul ndakaaru miinu fi dara maa def sens interdit man nañu damaa ju mais taximaan taxi zone noire bii daw fii Dakar war a gën a miin Dakar ba yow mii booy dem foo xamul yow da nga koy wax rek fa nga jëm fa muy jaar ak loolu sa yoon di ci nekk ndax xamoo ko kooka ba demee bay def ay sens interdit man dégguma taximaan yi wax ci dara te pourtant loolu lu doy waar la lu doy waar ñaata bakkan ñoo ci mënoon a rot tëli boobu yow boo ko xamee soog boobu ñaata soog ñoo ci mënoon a amaat. ndax oto ba mbëkkante ñaata oto ñoo ci waroon a mën a mbëkkaat ñaata nit ñoo ci mënoon a faatu yàllaa ci def sutura oto boobu dafa am bu nekk ci ginnaawam di daw vitesse te foofa vitesse lañ fa ku fa daw ndànk ñu mbëkk la parce que tali bi dafa tàllalu ay pont rek la amul doo daan amul dara te moom ci voie bi nga xam ne mooy voie gauche bi nga xam ne kiy doublé moom la war a jël moom voie boobu la jël nga xam ne man dama koo moytu def sama droite soog a mën a rombanteeg moom mais loo ci man dama koo romb jàll même pas diir ñu ne def na soog doy na waar doy na kenn mënta wax lépp Sénégal euh, liñ naan cin luy baax la euh, fépp amul roq bu sedd fépp ay metti léegi nag beneen bi ci topp mooy li nga wax ci moto yi waaw man de dama dégg euh, ñu ne état bi banaa banalisé na leen maanaam banaa leen ñoom waaye bàyyi gii ñu leen bàyyi de du seen jàmm bana leen cest à kenn contrôlé tu leen kenn arrêté tu leen kenn laajatu leen dara. waaw am na arrété bu fi génnoon temps yi agression yu bëri. xam nga loolu nag lu mu mu indi. waaw fi mu toll nii tembe. moto yee ëpp oto yi ci tali bi. gis nga man bu ma départ fii Ndakaaru ci bëccëg bi wala ma jóge ville di dem sama kër. Mm. xam nga lu may ñaanam. muy wóor na ma ne man bu ma muccee ci mato yi du ma laalanteeg oto moom. mato mm. yi kay laa xamul nu ma leen di def parce que fu ne lañ lay jóge waaw ñoom dañuy bëgg a teggi embouteillage di jaar te gauche ak droite lañ lay doublé xam nga moto bi ñëw sa gauche nga di xool di compter di ko may mu jàll fekk am na koo xam ne sa droite am na koy agsi booy moytu bee di dal ci ko waa léegi nag ñoom it seen façon da te léegi casque casque yi daanaka kenn ci ñoom solatu ko. waaw man loolu moom franchement loolu il faut ñu def ci plaidoyer. jóge naa fii euh, ville jël autoroute bi fii Médina. waaw ba àgg Padois li ma wàññi ci yoon wi ci ay moto. daanaka ëpp na téeméeri moto ak juróom fukk wallahi ña ca sol casque matul vingt matul ñaar fukk ma ne waaw lii nag lii lii ba kañ. te ñu am na ñoo xam ne liñ lay liñ lay arrêté jàpp la ci casque bi li nga solul casque moo tax ñu koy sol mais yow li nga xam ne yow lay aar. yow lay aar. aaru solal casque ndax nga mucc takkal sa ceinture de sécurité ndax nga mucc buñ demee ba di la ci jàpp di la ci amaan mais yow. ban xel a nekk ci yow ban mentalité moo nekk ci sa bopp pour yow la de casque bi moom du sauver kenn. moytu taal bii boo ci teg sa tànk di lakk. Mhm. nga ne il faut ma teg ko ci ñu alamaan ma ma soog koo teggi mais yow loo doon <laughs> ban xel nga yor foo ne léegi nag moto yi nag lu mu naqari naqari il foo état bi jóg ci jëlaat ci ay matukaay nag mhm. parce que nag lii man waxuma ko ngir sama bopp dama koy wax ngir ñoom parce que ñoo ciy loroo mhm. parce que gëm nañ ne ndakaaru dafa xat ku fi yor oto doo dem léegi ñëpp a wuti ay moto ñu demee nag ba moto yi ëpp oto yi kon oto yi mën nañoo far dem gaara ji. comme dëkk yu bari ci Afrique. xam nga moto yi ay cek cek nga doon wax naan ñooy kii boo soxlaa marchandise wala nga jënd nangam ñu livrer la ko service livraison léegi moto yi ay nit la ñuy livrer taximaan yi liggéeyatuñ ñëpp ay moto lañ jël moto yi ñooy taxi léegi daanaka fañ jëm nii mooy àgg ci oto dootu fi daw ngir client moto moo fiy daw ngir client. ki koy dawal solul casque euh, nu mu tuddati euh, kii client bi mu sëf euh, solul boo yeexee sax moto bi amul kayit ku wàcce sa weeru oto à tout moment mën nañoo këf sa alal mën nañoo këf sa téléphone moto yi amul immatriculation amul numéro amul dara luñ la ci këf yow perte nga mënoo ci dara parce que boo demoon di kalaame mënoo ni moto bi ma sa këf numéro sàngam la yor wala numéro nàngam la ab moto la jakarta la ñaata téeméeri junniy jakarta nekk ci dëkk bi noonu la ñuy dawee ci tali bi waa léegi nag yooyu buñ ko réglementé wul problème bi gis nga Mamadou Omar Ba dinañ toogaat fii li ci kanam rawali bat lii man maa la ko wax danañ dem ba yuuxu wallu ngir ñoom ñu dimbale leen ndax musiba ju leen oto yi di def chaque jour nga dégg ci accident boo xam ne moto la te fii ci ndakaaru lay xewee capitalu Sénégal lu ko gën a ñaaw il faut ñu teg ko ci yoon Eh, ci kon mbokk yi dafa mel ne li ñu war a teg ci yoon mu di benn waxtu di une jot na sëkk ci mbooleem gox yi Sénégal yi jot fii ci Ndakaaru jot ca Tatakin jotit ca Mbadakhoune jot ca Tambacounda ak Kër Sayib ga ca Thiès ma bàyyi leen Mamadou Omar Ba mu tënkal leen xibaar yi bii nag ci kàllaamay Kocc Barma lay doon di wolof buñ ca noppee nag soobu ak yéen ci yóbbalu bis bi Mamadou Omar Ba salaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah ana li gën a fees. li ci gën fës bokk na ci ca Thillé Boubacar département Podor gendarmerie teg loxo benn faux médecin Abdou Diouf lay wuyoo moom nag euh, ñu koy euh, toppee euh, def médecine ci loo xam ni kon du profession am usurpation. Euh, loolu nag euh, ñu moom da doon présenté wu comme ne étudiant la sixième année bu médecine euh, mu effectue mu def stage foofee ca hôpital bu pikin dégg ci ni ma gën a yaatoo Mamadou Ly gendarmerie nationale teg loxo ñaari wala ñiñ jàpp ni dañoo faat franco-sénégalaise bi mi ñu fekkoon kon mu faatu ca këram ca Somone département bu Mbour ñaari nit la ñu fekk leen ñu yor ay objet wala ngànnaay yi nga xam ni kon da leen di gën a dugal prix carburant wala hydrocarbures yëpp yu ci mel ni essence euh, gasoil yi nga xam ni kon euh, yokk na yokk gi day tàmbali tey jii bu 18h jotee ñu fësal ko ci ab arrêté bi nga xam ni kon euh, ministère du commerce et porte-parole du gouvernement ak collègue bu pétrole et des énergies ñoom ñoo ko publier. foofee nag ca Kër Massar ñey dawal car rapide ak njaganjaay clando nakarlu nañ ko lool nee nañ lii baaxul ci seen eh, liggéey te ñu ci bari ci ñoom nee nañ faaw rek ñu yokk paas ngir mën cee génn ñu teelu reportage yu Aminata Ba. dëkk yi daal di yëkk ci njëgu carburant bi. bu ñu war ñi automobiliste jàpp ne nag bi la dogalu nguur gi dina daal di indi ay njeexintal ci seen liggéey. ñu ngi tey moom wax yàlla ñëpp am nañ ñu yokkaat rek dafa waroon dawalkat bi di wóoturu El moom nag muy daw diggante Kër Massar ak Pikine moom itam nu ni mel la daal di dunde bi les mu jàpp ne nag ngir ñu génn ci faw rek ñu daldi yokk njëgu dem beek dikk bi waaw ah, loolu moom ñun dañ koy ñaawal trop ndax suñu transport bi si lañ nekk di suturloo te ñoom it buñ yokkee gasoil wala ñu yokk essence bi population bi la ñuy sonal dem ak dikk moom dañ koy yokk moom boo ko yokkul doo si génn nit doo liggéey pour perte. lu ko soriwul dara ci rond point bu Kër Massar. apprenti car Ndiaga Ndiaye yi nekk di xëccoo ay clients. dawalkat yi am itam njaaxaare ci yokkute bi ñu dégg ci njëgu gasoil bi ak essence bi. ah yokk gasoil ngay métti. suñ la boolee yokk gasoil dafa wàcce looy dese ah man de suñ ko yokkee moom sama war moom jàpp naan moom dafa koy gaare ji moom. li ko dalee samdi bi faw rek liñ doon génni ñu yokku ci ñaar fukk ngir mën a am litre essence wala gasoil automobiliste yi nag ñoom ñëpp ñuy ñaawlu bile dogal di sàkku nag nguur gi mu daal di koy xoolaat Aminata Ba Kër Massar rajo Futur Média. Aminata Ba jërëjëf ñetteel bi yoon préfet bu Tivaouane di tere rassemblement collectif soutien ngir ñu bàyyi député bi di Massata Samb autorité préfectorale bi euh, kon ne ordre trouble à l'ordre public la ci bañ collectif bi di nakalu bu baax décision boobu nee nañ fukki fan ak ñett ci weer wi ñu nekk dinañ amal rassemblement ñu am autorisation wala ñu ñàkk ko am ki ko xam ne di secretaire général bu fédération départementale bu PUR foofee. Euh, di góor gi jaa tey jii nag foofee fa ñu bëggoon amal manifestation googu nemmeeku woon nañ fa ay takk der yu takkoo takku ñëwoon kon euh, ngir euh, képp koo xam ni manifester na fa rek ñu teg la loxo ndaxte préfet bi daka tere dégg ci reportage yu Maguette Sow benn waxtu moo tegal ñeenti simili jër ngeen jëf fii la ñu taxawani ci tënkum xibaar yi jaajëfal Amady Ndiaye nekkoon ci machine bi yeneen jotaay xibaar bu ñaari waxtu jotee ñu bàyyi leen ngeen wéy ak seen émission yóbbalu jullit ànd ceeg Serigne Mamor Mbacke RFM. Radio Futur Média. 94 jërëjëf euh, Mamadou Omar Ba ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant bala may euh, dugg ci émission bi dafa am menn mbokk euh, mu ma jox léegi fàttali lu am solo loo xam ne bokk na ci sax li ma xalaatoon. waaw mooy sànq ci bi ñuy wax ci wàllug moto yi. Mhm. mu ne dañ leen war a wutal pulo maa ngi koy nuyu. di ko siyaare. ñu wutal leen seen yoonu bopp jox leen itam ay numéro wax nañ ko léegi mais ñu am yoon boo xam ne ci lañuy war a jaar te loolu war na mën a nekk. waaw idée la de. idée la comme que BRT bi ak ni mu toll xàllal nañ ko yoon woo xam ne ca bitim Dakar la jóge daanaka ba ville war nañoo war a mën a wutal moto yi yoon yoon wu ñuy jaar. nga xam ni moto yi képp a fay jaar. waaw moto yi kese ñoo fay jaar mais nag xëy na problème bi nag problème bi problème bi tali Sénégal yi dafa xat dafa xat Ndakaaru ci boppam moo xat Ndakaaru xat na aussi suñu tali yi xat na dafa mel ne bi ñuy tabax tali yi prévoiruñ avenir ëllëg non non ko xam nga damay gis man tubaab tey bu demoon ci benn village boo xam ne ñaari nit ak ñett ñoo fa dëkk bu leen di tabaxal tali man na 40 mètres wala 50 mètres ci yaatuwaay te fekk boo moytu bu fi oto jaaree tey ba la fay jaaral weer waa ci topp la waaye ëllëg dëkk ba dana dundi ba soxla espace boobu ci wàllu tali. dëgg ñun nag daanaka dañuy tabaxal tey waaye du ñu tabaxal ëllëg mhm. ñetti nit ñi la tabaxal waaye fukki nit ak juróom yi a ñëw ëllëg prévoir uñ leen mhm. problème bu ñu jànkontee loolu moo ñu ko teg. Oustaz mës dem Kër Massar. Kër Massar. Euh, bëriwuma fay tànk Kër Massar de boo jàddee noonu di dugg benn bunt bi mu am boo jugee mbaaw. Mhm. maanaam ci foore bi. tali bi xat na xat goo xam ni. defe naa bu démb doon tey du du noonu lañ koy tabaxee. Ah, ndaxte oto xam nga te euh, Kër Massar démographie ni mu e, nu mu explosé dafa dafa dafa mhm. garaaw ñu bëri ñu jóge parcelle Padois Grand Médine ñëpp dëgg la biir Dakar ñëpp Kër saar lañ dëkki te Kër Massar boo bëggee dem Tivaouane Peulh boo bëggee dem Jaxaay fépp ci bunt boobu rek ngay jaar moo tax dafa xat xat xat xat non instant nii ba pare pont bi ñu fa tabax. Mhm. pont bi ñu fa tabax. daanaka dem naa fa gis naa pont bi jaar naa fa. amu fa daanaka benn njëriñ ndaxte sens bi ñu ko féetalee vraiment ñàkkoon fa ñàkkoon ko fa tabax moo. daanaka moo moo moo xaw tane gis nga Kër Massar problème boobu fa am. Mhm. ci kanam tuuti lii maa la ko wax mooy am jam ñaajo. jam ñaajo lañ fay def bu sottee. waaw foofa dina xat xataay boo xam ne. xanaa xamoon ne Ndakaaru ñaari sorti la am. Ah, mais jam muy Rufisque jam ñaajo normalement loolu waroon nañ ko sóoraale. parce que dañoo ne pôle urbain la ba pare liñ li taxoon mu jug mooy désengorger Dakar. mais mais problème bi mooy jam ñaajo mooy bakkanu Dakar fa la dakaar di nooyee. waaw tali boobu noonu dugg Dakar fa la dakaar di nooyee liñ def jam ñaajo bu sottee embouteillage dana fa am boo xam ne waa jam ñaajo waa Ndakaaru ñii dugg dakaar ñii génn dakaar waa Mbour waa Thiès buñ fa dajee ak waa ñaajo ak infrastructure ya fa nekk. bu boobaa jam ñaajoo xam nga ni tëngéej meloon bu bu njëkk dafay route national bi nekkee nga xam ne loo daw daw ba àggee tëngeej ne tàcc foofu la jam ñaajoo jëm te loolu dafa mel ne bàyyi wuñ ci xel Dakar seetlu woo dara bu ñëpp jugandoowee rek muy événement muy lu mënti doon rek day métti day métti day xat ñëpp buñ wee buñ jugandoo rek problème infrastructure feeñ parce que mooy wane ne kon amaguñ ci lu doy gis nga beneen bi ci topp signalé woon naa ko VDN prolongé bi booy yéeg pont bi tëli boobu ngir yàlla nañ ko defar fi nga xam ne boo fa àggee sa oto day bondé oto dina fa daanu ji dina fa daanu ji daanu ji parce que booy daw lu bëri day sànni oto bi loola man toog naag benn ingénieur boo xam ne ko xam màcc la ci loolu mu leeral ma gravité ak dansé yi ci nekk ne ma booy daw lu bëri ba accès ci boo dalee dal bu njëkk bi nee na oto bi day jóg il faut nga sóoraale ko te foofa vitesse lañ fay dawee beneen bi ci topp gis nga rond-point Ablaye Wade yi mu def nii Foire. waaw boo jëlee jógee boo jógee nu mu tuddati boo jógee jëlee VDN bi romb gendarmerie Foire. Mhm. bay dëpp pour dem Yoff wala nga dem Ouest Foire booy wàcc gis nga tabloo kii ONAS bi ñu def foofu. waaw lampe bi leer na façon leer boo xam ne. Mhm. booy wër rond-point bi doo gis dara. da da lay dafa weex saaru écran CA la écran mais dafa leer weex tàll te foofa dafa lëndëm foofa amul éclairage amul làmp amul tus ba pare mooy kii yu yu sew yooyu nga xam da ngay yéeg wàccaat wëndeelu yéeg wàcc saaru essentiel yooyu nga xam ne dafa sew rax ci dalu oto yi ak moto yi dañ fay tase guddi gi yàllaa def oto yi duñ bëri waaye boo jàkkaarloog moom dootoo gis dara parce que daf lay brouiller dafa leer ba mëpp loola itam maa ngi ñaan nañ ci taxaw ak yeneen ak yeneen yu ñu war a wax ci dëkk bi ñun moom problème éclairage <laughs> suñu suñu problème mais may rafetlu ah. euh, xaw ma kan moo ko def xawma ma ku jël initiative bi certainement mhm. euh, peut-être mairie yi la mais route nationale numéro un bi mhm. li ko dalee daanaka euh, buntu Pikine ba dem Mbaaw mhm. ci rond-point Kër Massar bi boo génnee Kër Massar rond-point boobu ngay jot parce que am na ñu koy tuddee aussi rond-point Kër Massar foofu yépp yoon bi yëpp def nañ ko ay làmp ah, def nañ ci làmp waaw comme ah, péage bi daal foofu leer na nañ te dafa lëndëmoon nag loolu de lu rafet la moom loolu moom loolu moom am na solo ko encourager di di ñaan itam mu mu continuer ba ba côté yooyu moom kay mu continuer ba jeexal route nationale yëpp waaw loolu moom loolu moom am na ci solo moom te man wax dëgg yàlla route nationale yi Sénégal yi damaa bëgg xawma état bii la xawma beneen état buy ñëwaat ligne yëpp moo xam route nationale numéro un numéro deux ba numéro trois nañ ko yaatal route nationale yëpp mën naa doon deux voies parce que espace bi am na fi yow ban route nationale ngay jël moo xam jëlal bi jëm Diourbel jëlal bi jëm euh, Saint-Louis jëlal bi euh, jëm euh, Petite Côte bi route nationale boo ci jël amul fu la kër fu kër di jegee tali bi yëpp am espace bu yaatu yëpp a mën a doon bu dul deux voies yi doon tali bu yaatu boo xam ne boo diggante Dakar ak Thiès route nationale bi mhm. boo àggee pour gis nga tali boobu ni mel nga xam ne benn tali la mais yaatu na yaatu goo xam ne def nañ ñaari rëdd nga xam ne ñetti oto mhm. ba ñeent mhm. mën nañ cee lànk tali yooyu lañu ñu soxla ci route nationale yi ah, mais route nationale goo xam day mel ni butit ah, ah, am sew gudd am na ci yoonu ndara bi de affaire bi euh, àll la dëgg la àll la mën nga ko yaatal mais Euh, ñaari oto yi nii la ñuy tase maanaam yow foofu daanaka mënoo fa sax doubler. affaire bi dafa sew te pourtant espace bi am na. xoolal accident bi am tey biis boobu. te loolu wóorul. biis bi doon moytu euh, kooku noonu àndu xelam. ba ñaari nit faatu ci. te tey jii la ci yoonu ndar mooy biis bi doon jëm euh, xaw ma côté Matam la xaw ma fan jóge woon Dakar te pourtant dafa am nit ku mu doon moytu rek wàcc tali bi dama yoonam ndax xataayu tali bi. dafa xat dafa xat te am na ci tali foo xam ne ay descente la foo xam ne kawe na kawe goo ne. booy déraper yow xalangu koy def parce que tëli bi dafa kowe yooyu yëpp nag pour man liggéey ci moo gën nekk ci yoo xam ne daanaka am na solo am na solo mais daal <laughs> nañu fexe ba ñi ci biti yi yëg ne ñoom ñu ngi ci senegal suñu waaye jàpp ne ndakaaru moom Sénégal moom ndakaaru la. suñu milliard cour des comptes yi ñu def ci ay fleur ak i masque yooyu xaj na ay masque mën mën nañ fa kii. dégg naa mënoon nañ ko def dégg naa ñi ñi tuumaal xaw ma xaw ma Aminata da xaw ma kan ñu ne xaw ma nangami millions yoo xam da ci doon defaraat yaramam pour mu gën a jekk xaw ma kenn xaw <laughs> ma nit ñi dañ ñoo yàpp surfacturation ma nit ñi dañ ñoo yàpp ndox mu sell ndox ndox mu sedd cinquante million ma ne ndaw sedd <laughs> sedd guy xanaa mooy raw galaas dañ ñuy fooyee rek xam naa kon nga dem te ñëw waaw ah, bu ko defee yóbbalu bis bi mm. ci kanam tuuti ñu ñëw ci boo dellusiwaatee incha allah ñu gën a yaatal ace kon mbokk yi jërë ngeen jëf ci déglu bi seen émission yóbbalu jullit ak seen rajo Futurs Médias manis na koo tudd yóbbalu jullit pilis li ngeen soxla ci wàlluk diine ci pàcc bu njëkk bi da ngeen ko ci am li ngeen soxla ci wàlluk actualité ci pàccum ñaareel bi daa ngeen ko ci am li ngeen soxla ci wàlluk njariñ yuy tax seenu dundin gën a mën a jàkk ci pàccum ñetteel bi dangeen ko ci am loolu lépp itam du tee di ngeen mën a joxe seen xalaat ca kanam tuuti ca 88 628 14 14 ace kon Amady ñu daal di soobu nag spécial ci seen émission yóbbalu bis bi ak njariñ yu am solo yi nga xam ne moom lañu leen indil tey bi may tàmbulee nag lu jëm ci wàlluk léemaay la may profité di nuyu sëriñ Mohamed Ndiaye mi nga xam ne sama bind bindkat la ku mën a bind lool la rawatina lépp lu jëm ci wàllu xaatim adresse am ma nga fële ca Kër Massar boulangerie 2000 numéro téléphone am 76 884 85 75 moom bari na lu ñuy wax ci rajo bi lu ngeen mënta bind bu ngeen jokkoo ak moom dana leen ko bindal ku yàlla may la ci wàllu bind macha allah léegi nag kon ma tàmbalee ci léemaayu léemaay gu am solo lool mag ñi dañu koo fonkoon lool amadi lii may bëgg a wax képp ku ko def doo masa tase ak lu lay lor jaatu na walla bis boo tasee ak lu lay lorit du man ci yow dara dafay mel ni till gu gis gaynde na muy tiite ba taqali ko sagoom yow loolu tase ak yow doon lay mel léemaay gaa ngi nii ñetti yoon nga koy wax ñetti yoon troit fois nga koy wax jàpp leen bu baax li ma leen di wax moo xam dangay dugg ci mbooloo moo xam dangay dugg sa palaasu liggéeyukaay moo xam dangay dugg ci oto moo xam ci avion moo xam ci gaalug ndox lu man di doon lépp looy man di dugg ci àddina te bëggoo lor fekk la ci nga bëgg caa mucc ci jàmm doonte da ngay dem ci guerre lu man di doon te nga bëgg caa jóge ak jàmm lii may wax wax ko ñetti yoon wallahi alxasim lépp lu lay lor daf lay daw te mag ñépp ko fonkoon te bu ma ko waxee ñii ay mag te damay déglu te am xam-xam danañ ko xam danga naan bismillahi darbi darbi darbi njaay saalaali muhammad waalaali muhammad diikum daakum kulóoriya baat yi képp la ma baamtuwaat ko bismillahi darbi darbi darbi njaay saalaali muhammad waalaali muhammad diikum daakum kulóoriya ma waxaatal leen ko ñetti yoon man bu defee ma léemu waale bismillahi darbi darbi darbi njaay saalaali muhammad waalaali muhammad diikum daakum kulóoriya lii rek moom mooy muslaay gi incha ku ko wax wala fépp foo ko wax foo ragal ñu lor la wallaaki doonte sa directeur moo ne la kaay ma dàq la nga def lu garaaw am na yeneen yoo xam duma ko bëgg a tudd ndax bëgguma nit ñi def ko armo musiba mu di doon nga def ko ñu nar laa lor wax ko nga dem maanaam ki la naroon a lor ci boppam moom day daw bala nga ko faa fekk moom dana jëlub saagam jëli daal am daw dootul wax lu jëm ci lu lay lor ci àddina bàyyi leen ci xel bu baax a baax am na solo mbokk yi beneen bi ci topp lu am solo la lool ci cat di saafara cat ci bu gaaw xam nga Amady Ndiaye lu tax cat bon cat mooy benn feebar bi topp nit ba ci biir bàmmeelam am na ñoo xam ne bu ñu faatoo bañ leen di suul boo fekkee suul ga coow la day bëri lool boo ko dugalee nii jàppal fii bol jàpp fii bopp baa ngi tege fii yëkkatil bopp bi defal fii suuf tànk yi weng na wëlbati ko ma ngay barasiku ma daanu gis nga coow loolu loolu cat la ci am néew baaxul néew bu àndul ak cat normalement war nañ koo mën a gas ba suul ko ba maasale ba toog waxtaan ñaan te du am coow waaye am na ñoo xam ne seen cat da di topp ba ci seen biir bàmmeel ba ci seenug suul day bëri coow loolu nag cat la ngeen bàyyi ci xel léegi nag boo bëggee mucc ci cat ak cat li lu mu yàgg-yàgg ci yow lu mu bon bon mbokk lu yomb laa lay wax bindal sóoratu habasa sóoratu habasa dong daara yi xam nañu ko ku mel ne Mouhamed Ndiaye mii xam ne sóoratu habasa bindal sóoratu habasa ba mu jeex un fois benn yoon yaa xam ci indi yaa xam ci kayit nga ko bind yaa xam ci aliwo yaa xam ci ndab yaa xam ci loo ko bind waaye wutal inde inde Jóob xam nga indeem boo xamul inde laaj ko njaayeen yi waaw kay inde mooy liy tay ceeb ñoom xam na nañu inde xam naa père mama moom xam na inde waaw père mama taximaan maa ngi koy nuyu léegi boo wutee inde nga jàmb saafara si ci kaw inde bi muy dem ci siwo bi ngay sangoo ngay jàmb saafara si muy dem ci inde bi di sotteeku ca siwo ba ngay sangoo di jaar ci inde bi boo ko jàmbee ba mu àgg bu la neexee mën nga koo jàmb ba mu àgg nga dékk sa loxo di sotti saafara si muy jaar ci inde bi di dem ci siwo bi gis nga loolu boo ko defee ba noppi saafara boobu benn yoon képp nga koy sangoo amul sangaayu ñaari fan amul ñetti fan amul ñeenti fan benn yoon képp nga koy sangoo cat jeex ci sa yaram tàkk dootoo amati cat te gis nga cat bu la jàppee boo ci muccee aka yomba xam boo daanutoon nelaw danga nelaw sa yaram day woyof tooy problème yu bëri koo xam ne daan nga ko romb ci mbedd mi di ko nuyu du la fay bu la boo ko rombatee moom moo lay njëkk a nuyu foo xam ne danga fa daan dugg kenn du la faale kenn du la lijjanti boo waxee nit ñi sax ñu du mooyu la boo fa duggee ñoo lay njëkk lijjanti bala ngaa ñëw la ñuy laaj ci ana diw cat baaxul cat day tax kenn du la safoo kenn du la lijjanti gis nga bu la yàlla nattoo cat dëgg boo toogee ci rajo di wax kenn du la déglu nit ñi dañ lay romb nii di sàppe nii nga leen di gis nii gauche ak droite fréquence bi di daw nii nit ñi di la sàppe kenn du la déglu yàlla ñu yàlla musal ci cat yal nañu yàlla musal ci cat yal nañu yàlla musal ci cat waaw cat baaxul moo tax boo muccee ci cat rek dafay yomba xam day mel ne feebar bu nekkoon ci yow ba dañ rek na ngay yëgee ne libeere na la noonu la la cat li di libéré ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax cat it dana tax nga dugal dossier wala nga dugal demande ay at kenn woowu la nga tasee kub sëriñ mu defal la cangaayu cat bu baax te yow yàlla xam na ne bi nga koy def day danga koy def ngir sa yaram damaan bee fàtte woon nga ko ndax yàgg gu mu yàgg bu cat li dañee ci sa yaram ñoom ñoo lay woo dañ lay woo dootoo xamante ñan la cat baaxul beneen bi ci topp lu am solo lool la amadi lii may bëgg a wax boroom kër bu nekk war naa fexe ba xam ko ndax daf lay musal ci lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu néew kàttan wala tële wala ñàkk man dara ci sa soxna bépp borom kër boo xam ne day dem ci soxnaam te mënu ci lu bari lii may bëgg a wax bind ko def ko saafara quatre fois nga koy bind def ko saafara naan boo noppee nga jàng ko quatre fois bu soobee suñu borom lépp lu la mënoon a téye ci wàllu xawra ci kattan lépp lu la mënoon a gàllankoor day dañ ci nu mu moo nekk nii da ngay bind xasbala mooy auzu billahi min asheytaani rajim nga teg ca basmala mooy bismillahi rahmaani rahim nga teg ca allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallama tasliman auzu billahi min dalika bismillahi yari yari yari moom ngay bind quatre fois naan boo noppee nga jàng ko quatre fois dootoo manqué kàttan mukk ci àddina dootoo wuti mukk garabu kàttan dootoo ko jëndati fenn ndax danga ko am ba mu doy kon ngeen bàyyi ci xel am na solo ñu njëkkanteeg waxtu wi beneen bi ci topp aajo joo man di am ci àddina lu mu rëy rëy rëy rëy ëmmadi lii may wax wallaahi alxasim boo ko defee ci bis bi lay saafaraw lii moom lu ñu jar la maanaam lu ñu testé lu ñu xool wallahi alxasim ba gis ne lii lu efficace la wax dëgg yàlla man de testé naa ko wallahi alxasim billahi lasi laa ilaha illa huwa man def naa ko aajo joo man di am ci àddina lu mu rëy boo ko defee dina faju yaakaar naa ba ngeen dalee déglu émission yóbbalu jullit ba tey jii néew na loo xam ne man Mame Mor Mbacke maa taxaw ne man def naa ko bu ma juumul yéen a koy soog a dégg ci sama kàddu waaye lii moom man def naa ko waaw aajoo taxoon ma def ko te wallaahi faju na aajo joo am ak lu mu rëy rëy te wallaahi amadi lii ma leen di wax maa ngi waat ci màggug yàlla ne bu ma ci naree dog maanaam dagg ci lu toll ne bën bënu puso lu toll ne catuwee bu ma ko ci naree dagg sama kàddu yàlla bu mu yegg lépp laa leen di jox ndax dama bëgg ngeen jariñu waaw aajo joo di am ci àddina ak lu mu rëy rëy rëy boo ko defee mu faju ci lu gaaw wutal set guro yu weex juróom-ñaari guro yu weex koolaa blanc nga wut sett sondeel juróom-ñaari sondeel muy sett buusi nga wut ndab lu ndab bu manee doon ndab lu yees moo gën ndab lu set wicc nga def ci ndox boo ci defee ndox nga teg mokkal nga sóoratu yaasin taril mokkaloo ko ubbil téere bi nga tiim ko yaasin am na juróom-ñaari mu biidin tegal sondeel yi tegal juróom-ñaari guro yi wutal palaat boo def sondeel yi nga teg juróom-ñaari guro yi teg ndox mi ci sawet jàppal bu baax li ma lay wax ngay jàng sóoratu yaasin mu biinin goo àgg ñaanal sa soxla tuf li ci benn doomu guro tuf li ci benn sondeel jël doomu guro ba def ko ci ndox mi daal di taal sondeel boobu moytu koo def nag fu bari ngelaw ndax boo taalee sondeel bu mu fayaat loolu musiba la say mbir du baax kon moytu koo def fu ngelaw li bari wala nga moytoo taal ventilo ba pare di ko def ndax am na tuuti risque léegi boo jàngee yaasin ba ci mubinin nga ñaan sa soxla tuf li ci benn doomu guro def ci ndox mi taal benn sondeel nga jàngat ba àggaat ci geneen mu biinin ñaan sa soxla tof li ci benn doomu guro def ci ndox mi taal benn sondeel nga def ko ba juróom-ñaari guro jeex juróom-ñaari sondeel jeex juróom-ñaari mu biinin yi day jeex nga bàyyi sondeel yooyu nag mu tàkk diiru guddi gi ndox moomu amadi danga koy jël teg ko foo xam ne doo ko tëj doo ci ub dara asamaan si da koy tiim directe bu dara dox diggantee ak asamaan nga bàyyi ko mu fanaan fa boo yeewoo suba teel da ngay fekk sondeel yi tàkk ba jeex ruyit ji ruyiti sondeel bi moom ngay jël nga def ko ci ndox mi nga xam ne ci la guro yi nekk boo xëyee nga def ko ci ndox mi as ñetti guux naan ci sangoo la ca des amadi mësumaa jox mësumaa joxe fii lu rëye ni lii ma joxe tey nañu fi fekk bay nañu fi fekke bàyyi ngeen def ko ba ëllëg daañu daje dajewaat defal xool te nga respecté sart yi nii ma ko waxee wallahi amul soxla soo koy def ci àddina lu dul ne dana fajo te xam nga lu ci neexam boo ko mënul jërëjëf Mbay Juuf boo ko mënul mën ngaa weexal nit mu defal la ko waaye ka ngay weexal mu la koy defalit na doon ku ko man bul jël benn risque di tànti dem ci am Diop RFM nan ko kii Yaasin mu bii nii nangam ak nangam mu dem jàngal la la a kafaroo bu ko defee say mbir dëpp nga naan la sëñ bi joxe woon ca rajo ba dëpp samay mbir dëpp ko de yaa dëpp sa bopp mbir mu nekk ka ko xam ak ka ko man ak ka ko moom jox ko ko boo ko mënee defal sa bopp boo ko mënul seetil koo xam ne wër na ne la man na ko mu defal la ko ci sa tur wallaahi bu ko defee taal sondeel yi defal la lépp yow bu xëyee ndox mi rek lalay jox ne la am demal sangu nga guux sa ñetti guux sangu loolu képp moo la ciy war boo koy def say aajo de faju wallahi alxasib insha allahu taala euh, amadi dafa mel ne tey jii boo moytuwul problème mu temps daañu ko am kon léegi xam ngeen nu ñuy def dangeen may baal ma yemale foofu njariñ ji yaakaar naa lu mu gàtt gàtt joxe naa benn ñaar ñett ñeent jox naa leen ñeenti njariñ juróom-ñaar nag laa fasoon a yéene joxe tey ma jox leen ñeenti ñett yi ci des nag mi ngi nii ma tiim da ngeen may may ma dencal leen ko ba ëllëg a jàmm bu ko defee nee na ma baamtu yaasin bi waaw kay dafa am mbokk yu koy laaj da ngay jënd juróom-ñaari guro yu weex ak juróom-ñaari sondeel nga jënd ndab lu bees nga bàyyi ba guddi loolu dama koo fàtte woon a waxaale guddi la koy def da ngay bàyyi ba guddi nga toog ci barab bu set ta sell yow ci sa bopp sellal nga laab toog fu sell ta laab fekk teg nga sa juróom-ñaari guro yu weex sa juróom-ñaari sondeel sa ndab li def ndox mi ndab lu sell ta set bu ma nee doon bu bees moo gën bu ko doonut it na set ndox mi ngi ciy def na set ah du dëgg euh, nga teg sa palaat bi ngay teg sondeel yi. bu ko defee nga jël sóoratu yaasin yaa xam da koo mokkal di ko tari yaa xam da nga koo tiim di ko jàng nga commencé mu biinin goo àgg gu njëkk ba ci gu mujj gi boo ci àggee nga ñaan sa soxla tuf li ci benn doomu guro def ci ndox mi daal di taal benn sondeel boo àggaatee ci geneen ñaan sa soxla tuf li ci guro bi def ci ndox mi taal benn sondeel nga def ko ba juróom-ñaari mu biinin buy jeex juróom-ñaari sondeel ak juróom-ñaari guro yi day jeex bu ko defee juróom-ñaari sondeel yépp tàkk na noonu muy tàkke nag nga koy bàyyee noonu muy tàkk ba ko fay nga jóg ndànk jël siwo bi nga xam ne wala ndab li nga xam ne moo def ndox mi ak guro yi nga dem teg ko foo xam ne asamaan si da koy tiim dara du dox digganteem ak asamaan doo ko tëj sondeel yi nga bàyyi ko mu tàkk ba bët set boo yeewoo nga jël ruyiti sondeel bi nga def ko ci ndox mi nga xam ne ca la guro yee nekk ndox moomu nag moom ngay naan ñetti góox li ci des nga sangoo ko nga xool bis bi nga ko def xoolal ba xam nu muy demee bu ëllëgee nga woote fii wax yow bi nga ko defee loo gis lii moom man dama koo joxe mais dama koo garanti parce que man dama koo def yàlla xam na ko te sëriñ si may déglu te am xam-xam danañ xam ne lii ma leen wax lu wér la waaw vingt une heure vingt neuf moo jot il faut ma ubbi téléphone bi il faut euh, éphéméride bi dina ñëw te deux heures du matin la ñuy tàggoo c'est compliqué <laughs> ma di eh, ci kon ñu daal di njëkkante ak waxtu wi eh, jël téléphone bi ci 88 628 14 14 wala 88 628 14 15 biti réew 00 221 33 849 16 40 mbokk yi nga xam ne nag eh, dañ may bëgg di jot téléphone après émission bi mën nañuy woote ci 78 422 45 78 422 45 mën ngeen cee woote. lundi mardi mercredi jeudi ak samedi eh, vendredi ak dimanche du ngeen ci mën a woote bis yëpp itam man ngeen cee woote à partir de 10 heures ba 18 heures ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax lu waay soxla man nga ci woote eh, moo xam rendez-vous wala yeneen yu ni mel wala ñaan yi ñuy joxe fii xëy na loo xam ne nit dafa bëgg moom eh, Mame Mor Mbacke la bëgg mu defal ko lii wala mu defal ko lee wala mu defal ko ñaan na woote ci numéro boobu 78 422 45 dina am ay renseignements ba agsi ay ca kon 88 628 14 14 88 628 14 15 ñu jël suñu auditeur bu njëkk ci téléphone bi salaamaaleykum. ku baax ki noo tudda fooy wootee. sëriñ bi maa ngi lay nuyu. ñi ngi lay delloo nuyoo di la ziar yow itam. ah namm la rek. wallaay ñoo la raw. Eh, ndeysaan seetlu fàttali ma ko <laughs> sànq yaa ngi nuyu yaa ngi nuyu suñu dëkku nga xam ni gannaaw yàlla ak yonent bi moom rek la ñu am. maa ngi lay wooyee Paaluk maam El Hadj Rawane. ah tubaarikàlla oh El Hadj maam Rawane Ngom. góor yàlla ga Maodo Fall sa mbokkum silmaxa bi lay woo Paal wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg. maa ngi sama xarit boobu ci sa Diop RFM. ne wallaay Diop ah Diop faaw nga faaw nga woo nag <laughs> bu jógee fii dina la woo bu soobee yàlla loolu moom maa ko ciy taxawoo. waaye danaa ko jox carton rouge. eh ëpp naa def wuyu ma jox ko son bi en attendant. waaw man bu Paal góor yàlla gu mag googu bokk ci ponk yi gën a mag ci Sénégal. maam sa maam sa maam Serigne Touba. bi muy def tournée boobu di wër dëkku dëkku boroom xam-xam yi. ñëw na Paal gi fekk si ko fi. ndeysaan dëgg la. Euh, fi mu ko fekkoon bi muy agsi sama maam moo a nettali nee na bi ñu bi muy agsi Paal ci maam Rawaan. moom Serigne Touba. waaw nee na mi ngi fekk takkusaan juróom benn minute moo ci def. Hmm, takkusaan mooy siis. waaw nee na mi ngi ak lu mat juróom benn gëréem. Hmm. takkusaan jotee maam Rawaan ni ah cheikh bi gan de ganale waaye julli yàlla gi da taxaw na. Hmm. ndeysaan mu ne ko aywa rawaxaan nañ julli mhm. ay sama ma maanaam jiite gi rek jiite takkusaan gi rek géngante nañ luy toll juróomi minute ku ne naan sa morom jiiteel ndeysaan ka ñëw baax waa jëlee ñooñu day ñu xëccoo cër lu jigi sëñ bàmm ni ko alaaji rawaan moom ne ko man yow laa gane si te gan du jiite jiite moom ma taasu ci yow barke ndeysaan est-ce que boobu maam rawaan na mujj jiite takkusaan bi ñooñu daawuñu xëccoo cër de mukk dañu xamoon dañu xamoon cër di ko joxe dañ ko daan joxante waaw kenn ko nekk cër ba gën a rëy ci yow ci sa moroom sa morom nga ko gën a yéene. wallaahi bërëb bi nga ko fekk woon fii jàkk lañ fa tabax macha allah. macha allah barab boobu de daañu ko daañu ko siyaare si incha allah. boobu foofu tool la. macha allah daañu ko siyaare si bu ci yàlla andee. tool yooyu ci la ñuy la ñuy def suñu bërëbu jibikaayu ayit léegi mais jàkk jee ba suñ bamba seet si woon Maodo ma nga fa ba léegi. macha allah alhamdulilah yàlla xam na ko. loolu tawféex la lii moom lu am solo la. lu am solo la léegi ñu ngi lay yokk béegi bu baax a baax. alhamdulilah Euh, di ñaan yàlla dëgëral la te yokk sa xam-xam. ndeysaan. yal na yàlla barkeel rajo bi barkeel njaboot géej yëpp. ndeysaan amiin yaa bi kontaan mais am na li am na istixaar boo fi joxe woon ajuma bële paase. dëgg la de. mooy euh, ñaari rakka yi rakka bu ci ne nga def ci inna atayna ak juróom inna ataynaakal kawsara. Mhm. Euh, mais ay alxuraan bi ngay wedd ci wasamaay saatil buruj laa fàtte yaakaar naa ci fin ba ne. Mhm. waaw mais aaye balaa xamatul ñaata lañ koy lañ koy werd loolu dinaa ko xool léegi te waxaat la ko incha allah waaw danaa ci ñëw léegi incha allah <laughs> te numéro boobu jël naa ko mais xam naa après danaa la woo incha allah nañ ci déggante bu ci yàlla àndee incha allah na am na soxla bu ma la soxla daal ba xam daal bu ma sañoon dama la koy wax ci suuf incha allah bu soobee yàlla fa fàttali ma tur wi rëcc na ma de Mamadou Fall sëñ Mamadou Fall wax nga dëgg te te yow it yàgg ngaa woote sax waaw loolu am na loolu am dëgg la dëgg la jërëjëf Mamadou Fall jërëjëf Mbacke. macha allah jërëjëf Fall nuyul ma waa Paal. booy dem ndar boo jaalee Paal siyaareel ma maam rawaan Mamadou Fall foofu mu dogee fii laa jotee message beneen Mamadou bii Mamadou Ndiaye la tudd nekk ca télévision Futurs Médias di fa def jotaay yu am solo yooyu rawatina lépp lu jëm ci wàllug internet lu xew biir er, biir internet seen émission carte général lépp lu jëm ci wàllug internet beeg yu mel ci loxoom lay jaar moo koy jàllale. Euh, Mamadou njaay di sama soppe di sama xarit di ko baax ci man wax dëgg yàlla euh, doon ko am itte ci man euh, ndax man Amady loolu bokk na ci li may jàppee ci nit gis nga Amady bu weesoo Mamor Mbacke kenn sëñ Touba ak animateur beeg émission yóbbu la gis nga amadi yàlla xam na ni nu ma nit def na laa lay def ku ma jàpp ma jàpp la ku ma ne yàllax ma ne la yàllax yàlla xam na ko salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu. ku tedd ku baax ki noo tudd wootee. sa soppe sa xarit sa taalibe Babacar Diakhoumpa depuis Tëngéej. kër jaxum Diakhoumpa sama xarit sama soppe. sa taalibe. doonal sama xarit rek. xam nga déedéet <laughs> yaay sëñ bi. man ab taalibe de. déet déet Mamour xam xam nga lu may bañam. Ah. ngeen lancé wu erreur jàpp ne Mamour Mbacke ab sëriñ la fekk ab taalibe la. ab taalibe de. waaw mais da ngaa wàccee sa bopp rek waaye ab sëriñ nga de. yàlla xam na ne bàyyil ñu doonub taalibi rek. maa ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax a baax wallaay ñi ngi la koy nangul bu baax a baax macha allah. di la wax ko yan sirokalaaw nasran asisan nasran asisan. wallaay yal na la ko yàlla defal. amiin yaa rabbi amiin ñu bokk. wa rafanaaw makaanan aliyan makaanan aliyan amiin yaa rabbi. ñun yal na la ko yàlla defal. amiin yaa rabbal alamin waaw maama yéen foog naa fa yam ku su fil ardi wallaay yàlla nañu ko yàlla defal yàlla na la ko yàlla defal Mamour Mbacke amiin ñu bokk ko amiin li nga wax ci yaasin loolu lu wér la ah alhamdulilah kon yonente bi sallallahu alayhi moo ko waxal man loolu sa wax jooju bi sallallahu moo ko moo ko dëggal yaasin lima xuriya jeex na <laughs> loolu yaa ko wax yonente bee ko wax wa sallam yaasin ak li tax nga jàng ko nga bool si secret yooyu loolu moom wax ju wér la man dama koy dëggal parce que yonente bi moo ko wax yow waxu yonente bi rek nga firndeel alhamdulilah yaasin dafa bari njariñ lool yoolu nga ci wax ne loolu wax ju wér la dëgg la ndeysaan yonent bi sallallahu wa sallam lu mu wax rek du waxantu sallallahu alayhi wa sallam yow wax yonent bi sallallahu ngay sallallahu alayhi wa sallam ngay wax ak waxi maam borom Tuubaa ak waxi kilifa yu baax yi wallahi wallahi wax ji lépp wér xam-xam bu leer nañ ngay joxe wallahi moo ñu fi yonent bi neen addiina nasiha dëgg la te yaa ngi koy yaa ngi noo yow Sénégal yëpp ak nit war laa ñaanal Mamour Mbacké amiin yaa rabbi ndeysaan gis nga ki ñaan baaxul te yow da ngaa laabir ci xam-xam bi lool wax dëgg yàlla boo koy wax xool nga koy waxee <laughs> yaa ngi sama genre yaa ngi leen di dimbali bu baax a baax a baax a baax yàlla xam na ko wallaay li nga li nga jàngale si tasawurul zihaar nag da ko jàngalaat tey tey moom dama jàngaat ndeysaan parce que sañ sañ imam ka bu sëtu maam kii kii ka moom moo doon jàng tasawurul zihaar ndeysaan imam Ka mi ngi dëkk fii ci Tëngéej. dëgg la dëgg la surtout surtout surtout surtout surtout Moussa Ka la. Serigne Moussa Ka. Ndiame Serigne Moussa mooy mooy moo ma doon jàngal tasawudul jihaad mais dama ci jàngaat lu bëree bëri bëri ci yow ni nga ko doon taxatalee. alhamdulilah kon Mamour Mbacke yal na yàlla guddal saw fan. amiin yaa rabbi amiin ñu bokk Mamour Mbacke lépp loo yóotul yàlla na nga ko jot. amiin yaa rabbi. amiin lépp loo ragal yàlla bu mu yegg si. amiin barke Cheikhul Khadim. barke barke Cheikhul barke yonent ci yow bu a a a kontaan. ginnaaw Nabassa Mbaye mi ngi lay nuyu bu baax a baax Nabassa Mbaye maa ngi koy la bokk ñaanal ma ko bu baax a baax wallaay ndeysaan yàlla ak soxnaam mi ngi lay nuyu bu a a a man mii lay xaar pour ñu indiloo ko sa kër lëjum yi. ay ca kon. léegi rek woo di ma ko wax ko non bu dangay jàpp jour ñu dem parce que bor la. waa jamono ji la baaxee nag parce que yi sedd la nekk. jamono yi sedd la nekk nee naa mi ngi lay. du gaaw a yàqu. mi ngi lay dégg Alioune Gueye kon yaa ko def. la promesse est une dette. mu ngoog loo diggee da nga koy def. Alioune Gueye maa nuyu bu baax a baax a baax. sëñ Malle wallaay moom itam maa ngi allazi xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa azizun gafuur allazi xalaqa sab'a samaawaati tibaaxan maa taraa waa fi fi xale Rahman mi tawa faj farjin parce que xëtara min fi tuuri ila axiri yi alxuraan dafa neex xam nga ni la foo saf sa baram la feneen di saf la feneen di saf wallaay wallaay moo tax seen tubaab waxoon na ko maasikan bi kitaab maska dariri bi yaddil xaaidil basiri muhiini jeex na su tubaab loolu la wax ah na naa bañ a guddal jërëjëf sëñ Babacar maa ngi wallaay mi ngi lay dégg ak Amady Ndiaye sama ñaari xarit yu baax yooyu maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax yal na yàlla guddal seen fan yokk rajo bi ba mu yokku amiin yaa rabbal alamin barke yonent bi sallallahu alayhi baax rek da ngaa baax rek te xam li ngay wax waa Tinge yow bu baax a baax maa ngi leen di nuyu waa Rufisque voilà ñëpp ñu ngi lay kontaan waaw bu baax a baax jërëjëf jaxumpa waaw après nga ñëw ma si sóotu mu gën asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu waaleykum asalaam wa rahmatulahi wa barakatu jërëjëf eh, sëriñ Babacar jaxumpa eh, maa ngi koy nuyu di ko siyaare di rafetlu Euh, contribution parce que yëngal na ma alxuraan dafa neex euh, yonente bi alayhi salaatu euh, mbiram dafa neex dafa leer dafa wóor boo ci nekkee doo ci sax bëgg a génn dama bëggoon sax ñu far continuer émission bi muy muy muy ñuy ñuy tari ñuy jàng alxuraan suratul mulki boobu laaj wax na ci wax na ci laaj na ci laaj bu am solo daañu ci ñëw léegi ci kanam ndax bokk na ci saar yi nga xam ne wax dëgg yàlla ku koy jàng guddi wala nga di ko jullee doo gis euh, malaaka yi nga xam ne ñoo lay sonal ci biir bàmmeel euh, sa bàmmeel suñu borom dana ko leeral euh, tey it lépp loo xam ne mbugalum bàmmeel la da ci mucc tàncug bàmmeel najug bàmmeel yooyu yëpp da ci mucc kon ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax am na solo Euh, maa ngi nuyu ginnaaw Mamadou Ndiaye moomu sama boobu boobule yaay tuuti wàdd euh, bu euh, CMS Crédit Mutuel de Sénégal maa ngi koy nuyu di rafetlu moom itam contribution maa ngi jot message am tabarakallahu muy rafetlu émission bi moom yaay tuuti wàdd sama soppe boobu ñu ngi koy nuyu ak way jërëm wu tedd woowu moom itam maa ngi koy nuyu amadi xam naa Mamadou Omar Ba man naa jege si parce que vingt minutes moo des ci émission bi tayit auditeurs yi ñoom bàyyeeguñ ma jël keneen Euh, xam naa bu dul auditeur bu mujj bi itam di avant bu mujj bi euh, te Mamadou Omar ba ñëw toog ñu daal di euh, tëj émission bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ay ca ko baax ki noo tudd ak fooy wootee. man maa ngi tudd Pape Sénégal di woote Thiès. Pape Sénégal. waaw di woote Thiès. waaye sa tur wi neex na di. Ah, waaw te daara ja laa woon de moo tax ba léegi sànni wu ma ko. Ah, ah. ah waaw kañ lañ mooy sëñ Mamour Sénégal. ma ne kañ lañ may woowee sëñ Mamor Sénégal. sëñ Mamor Sénégal doomu réew mi gars yi dañ naan neex na de. Ah, ma mais maa lay siyaar bu baax sëñ bi kontaan naa ci yow parce que da ngaa ci sam réew. sëñ bi yàlla daf ma daf ma nattoo. Mhm. way laa la waaye vraiment yow xam nga la nga doon a dolli sama dundoo. ndeysaan ndeysaan macha allah parce que ba mu gëjee jàng xaw na yàgg lool. Mhm. di nga joxe léegi nag dama la koy témoyel mm-hmm. te tax alhamdulilah parce que amoon naa benn xarit boo xam ne dafa bëggoon dem États-Unis mm-hmm. li nga fi joxe léegi si yaas yi laa ko jaarale mu mm-hmm. sotti parce que alxuraanu may wax ak yow ma nga fa alhamdulilah mu nga kon loolu moom dama la koy seedeel jërëjëf est-ce que ko joxee sax dama tiit ndeysaan ba dama tiit wallaahi bi ma koy joxe. waaw sëñ yëg naa ne ku ko xam. bu ma ko tuddee di tiit. parce que ñi ko xam xam nañ ne lii du lu du lu ndaw. du lu tuut waaw dëgg la barki Dembo Ndiaye rek am na benn kilifa bu fële ca géejawaay bu ma tudd turam. dëgg la jëru ko. voilà benn bis barki Dembo Ndiaye rek am na lu ma lu ma ko doon laaj. Mm. lu ma jaaxal ma ngi ma ko yor te xam maa ngi ko yor te moom xamul ne man yor naa mais dama hmm. kaa bàyyi mu wax ba pare rek ma ma bàyyi noonu mu jàll. <laughs> sëriñ bi. ndeysaan. lu ma la mën a xamal mooy kontaan nañu lool ci yow. alhamdulilah bàyyi yi ñu bàyyi rek moo ñu naqari. Eh. dañ ñett ñu ngi ñu dencal. Eh, wallaay bu ëllëgee rek da nga ko waroon jox parce que yow. <laughs> vraiment foo nga xam ne ñu yow. jàngale ñooy jàngale ci université bi sax yow yaa leen tane. ndeysaan alhamdulilah. parce que lu mu lay sax tey li nga toog si rajo bi jàng ay millions yi millions yi doomu aadama ñu ngi lay déglu. dëgg la wallaay si te ñu ngi ciy jariñu am na ñoo xamante ne si seen seen loxo jotul seen ginnaaw. dëgg la. am na ñoo xamante ne amuñu temps wu dem école wala amuñu temps wu dem si daara ja. Mhm. nga jox leen li leen di jariñ moom moo moom moo moom moom moo gratuitement boo xamante ne kenn du ko du ci fay dara. ndeysaan macha allah kon sëñ bi dañ lay ñaanal yàlla. man mhm. nag bul ma di mm. fàtte. incha allah ndax des fois damay dem ba ay deux heures du matin sax dama lay déglu. dëgg la da ngaa baax rek te bëgg lu baax ba trois heures wala quatre heures. dëgg la Amadou Sabar Ba dëgg la ndeysaan dëgg la. voilà vraiment. wal wal wallaay sëñ Pape. waaw yërmande jooju sax de moo tax léegi may jeexal deux heures. ndax ah. dafa da ma ne yërmande jooju moo tax léegi émission ma koy yemale deux heures. ndax dafa am ay mag ay ak ay kilifa ñoo xam ne wax dëgg yàlla donte cinq heures du matin la ñuy dem. dana leen jaral toog bañ a nelaw te loolu euh, xëy na gënaluñu ñun. te sëñ ma moo Mbàkke. lenn foo moo ko Sénégal ñu xam ko. bismillah. yow lii ngay wax nii di ko joxe nii. Mm-hmm. wallahi di ngeen faa joxe loo xam ne man lu te xam ko sax man dama naan kii lu muy joxe nii te lu muy joxe. est xam na ko. Mhm. est-ce que lu war a mën a génn la. voilà léegi nag. Mhm. des fois keroog fan keroog dama toog am benn waay lay toppandoo ci internet bi. Mhm. <laughs> ma jékki-jékki. waa ji ñëw indi wan ma ko ma ne ko waa ga waa baax na léegi damaa bëgg nga defal ma yóbbalu jullit piir. nga bindal ma ko. nga xool wala nga def wala wala nga dugg ci phase RFM xool. mu dugg foofu man ma sëñ bi daa mel ne lii moo gën a wér de man ka ah, yow yow mu jàngul kay yaa xam loolu amul yeneen. <laughs> sëñ bi kontaan naa ndeysaan maa ngi lay yaa baax ñetti rek laa lay ñetti rek laa lay laa lay laa lay ko laa lay bàyyee. Uh-huh, bisimilah. sëñ bi. Mm-hmm. ku bay sa bànneex góob sa naqar. ku bay sa bànneex góob sa naqar. dëgg la waaye képp ku jël képp ki nga xamante ne bàyyi nga suñu bopp suñu bopp suñu reban nga suñu borom ker. Mm-hmm. bis dina ñëw bis dina ñëw mu fajareel nga suñu borom kër bis dina ma ñëw mu fay la guddi. dëgg la. te gën cee ci li nga nekk bu la ci kenn jëlee. incha allah ci vraiment kontaan naa si yow loolu. alhamdulilah dégg lool loolu te lu may li ngay joxe waa lu mu xoon sànq rek dëgg la xool nga koy joxe. wallaahi dëgg la. jërëjëf wallaahi kontaan naa lool. jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Euh, des fois damay toog di defee émission bi di joxe am njëriñ damay gis Amady Ndiaye day jékki-jékki ni ma jàkk parce que euh, bu ma koy joxee maanaam sa sama jëmm yëpp dafay ànd damay mel ni ku ku bëgg a bëtt micro bi dugg ci biir pour jàkkaarloog nit ñi gis leen ne leen def leen ko mi ngi nii parce que yéen a jëma ciy àndal yàlla xam na ne jàppoon naa ne yéen ñiy déglu sax yéegu leen ko yàlla xam na ko mais nag sama itti mooy ne ñëpp jariñu yàlla na ñëpp jariñu wallaahi alxasim yàlla na ñëpp jariñu barke bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam barke alquran barke seexul xadim ay ca kon Amady man nga maa far tëjal téléphone bi malheureusement nag euh, gën gënalewuma woon noonu mais nag euh, comme euh, rendez-vous la tey nag dafa am ci temps bu ñu tënku fukki minit ak ñeent rek moo des ci émission bi xaw ma sax ndax éphéméride bi dana fi xaj Mamadou Omar Ba mi ngi leen di ju junj léegi ay questions yu am solo yu bàyyi ko ci Ibrahima Jàmme te 14 minutes moo des ci émission bi xam naa du ma guddal maa ngi jéggalu mbokk yi jot woote ak ñu nekkoon ci yoon wi bëgg a agsi Euh, kon Mamadou Omar Ba ñu daal di def euh, fast track bi xam naa ñu delloo siwaat ko rek euh, fàttali la tey jii la samedi dëppoo ak le 7 janvier 2023 7 euh, janvier lan moo ci jot a xew ci àddina wërngël këpp. 7 janvier 1822 lañ koy tàmbalee organisation bu njëkk justice bu Sénégal gannaaw bi français yi euh, gannaaw bi Sénégal delloo ci loxo français yi Gorée ak Ndar Géej euh, anglais yi ñoo ko mujjoon jël atum 1804 ak 1809 traité franco-anglais bu Paris ñu signé ko 30 mai 1814 ñaari localité yooyu ñu delloo ko France mmh. gannaaw kon biñ ko nangoo ci ñoom. 1817 euh, Odyssée bu Méduse euh, fexe daal ba Saint-Louis gouverneur am Julien Smalze euh, jiite ko ak ay personnel ñu defoon naufrage ci ban Arguin ci côte yu mauritanienne mhm. moomee gouverneur bu Saint-Louis 7 janvier 1828 Jean Jublin ñu tabb ko gouverneur bu Sénégal euh, mu wuutu woon Jacques François Roger mhm. gannaaw bi mu wuutee bu mu wuutu woon Yacine Benjamin Zirdon mu wuutu ko ci intérim mhm. euh, nekkoon kon commissaire commissaire bu marine 7 mhm. janvier kii di euh, Serigne euh, chef bu Boudé. Mhm. nekkoon ca Sédhiou Sunkari kamara euh, jël boppam jébbal ko autorité coloniale française yi ne maa ngi nii gagné wala ñu ñu koy waxee ci wolof déposé ngànnaay yi. Mhm. lu ma am jël. waaw mhm. nangu ni gagné nañ ko newoon kon ancien territoire bu Beynouk. foofee ca Casamance. Mhm. Euh, ak Sédhiou ak li ko wër. Mhm. moom moo ko doon jiite moom Sunkari Camara. 7 mhm. janvier 1887 mu déposé ngànnaay yi doon xeex ak kon français yi. ñu dem ba ëpp ko doole ci mbir mi 7 janvier 1961. Euh, ñu inauguré foofee ca Mekhe euh, route Dakar Saint-Louis hmm. njiitu réew mi jamono jooju Léopold Sédar Senghor moo ko defoon hmm. ki ko dalaloon foofee di maire bu Jënum hmm. euh, Malick Ndiaye gannaaw gi kon la Léopold Sédar Senghor continuer yoonam dem Ndar Géej ngir inauguré fa yeneen 7 janvier 2001 référendum constitutionnel ñetteel bi yoon Sénégal di ko organisé oui bi emporté ko ak 94 pour cent suffrage exprimé Sénat ak conseil économique ak social Sall ñu dindi ko kon euh, Abdoulaye njiitu réew bi fi nekkoon président Abdoulaye Wade mhm. euh, consulté woon askan wi euh, kon ngir benn ci mbir yi daal wala lu ci ëpp solo mooy mandat présidentiel bi mu fekkoon sept ans mhm. yóbbu ko cinq ans mhm. Euh, jamono jooju euh, mu itam euh, indiwaat mbiru assemblée national conseil économique social ak sénat daf ko dindi woon mm-hmm. waaye itam ñu amal élection législative anticipée avril 2001 2008 mm-hmm. la Abdoulaye Wade def machine arrière maanaam indiwaat septennat bi jëlee mandat bi cinq ans indiwaat ko sept ans sept ans googee la fi njiitu réew mi Macky Sall fekk ba moom it mu kon euh, mu engagé wu ci bi mu doon def campagne présidentielle ne bu ñu ko tabbee dina delloo mandat bi sept ans cinq ans ba pare verrouillé ko. Mhm. fexe daal ba ku nekk boo ñëwee dangay def ñaari mandat yu juróomi at yu toftaloo te bu jeexee da ngay dem. Mhm. Euh, ci loolu xam naa mën naa foofu la problème bi nekk <laughs> mu ngoo foofu bi ci profité dugal euh, mhm. question Ibrahima Diame bi rek ci mbiru troisième mandat la comme que am na rapport dafa ni tey jii ñi doon xeex troisième mandat bu Abdoulaye Wade Mm-hmm. bi mu bëggoon présenté wu ñi ko doon bañ jiitu ñu ci mel ni Macky Sall ak ñeneen ñu nekk ci nguuram tey jii ñoo mm-hmm. koy défendre bec et ongle mm-hmm. nee na euh, nan nga ko mën a jàngatee ak njiitu réew mi tey jii bu taxawoon ne candidat la ban climat mooy am ci réew mi waa ni ma ko mën a jàngatee de mooy dama dégg euh, sax euh, ay déclaration yu ma xaw a jaaxal yu ma jaaxal lool ci ñi nga xam ne ñoom ñooy xeex troisième mandat bi à commence par dégg naa xam ni ñoo koy xeex ñoo koy xeex waaw dégg naa Barthélemy Dias mu ne Ablaye Wade sañoon naa présenté wu 2012 wax ne Macky Sall bu présenté wu 2024 ngeen taxaw ne ko du fi présenté ku génn xeex da ngaa yeb sénégalais ndax sañ na ko. loolu est-ce que du vidéo bu yàgg parce que am na am na. bu yàgg mais booba yi référendum yi am na. waaw amoon na ba noppi. amoon na ba pare booba booleke nañ nombre de mandats yi deux cinq ans. ma déggaat tey mboolem politiciens yi koo ci consulté lim lay wax mooy Ablaye Wade ay la yéwén sañoon naa présenté wu waa léegi loolu nan nañ ma ko mën a comparer ak tey jii bu Macky Sall parce que même cas la même cas la nombre de mandat bi Ablaye Wade da koo indi def cinq ans defaat ko sept ans deux la war a yem mu ne damay présenté wu xam nga sax man sax kaawu Macky Sall laa jàpp ne moo gën a critique kaawu Ablaye Wade a garaaw waaw xam nga lu tax mu gën a garaaw ñaari façon bu njëkk bi mooy ablaay waat dafa def déclaration wax ne booba mbooloo mu bëree fa nekkoon mhm. damaa xamatul man dajale woon fàtte naa ko mu ne mooy fi ne maa waxoon waxeen mhm. ne kenn du ma génne benn vidéo bu ma wax ne du ma def troisième mandat mhm. du ma présenté wu 2012 ne amul kenn ku mën a génne vidéo bi effectivement amul kenn ku mën a génne vidéo bi ba tey ji vidéo bi kenn amu ko son bi kenn amu ko mu ne nag bu dëgëree bopp ne moo ko wax ne ko moo waxee waxeet. waaw bu ñu demee ba ñu insister ne maa ko wax. waaw maa waxoon waxeet. ca la am Macky Sall nag dañoo am vidéo ak son moom bu mu taxaw wax ne mandat bii ngeen ma fale sept ans. yi kañ la woon 2019 wala présidentielle yi fàtte naa sax ban année laat yi mujjoon a am 2018 2018 2012 yaakaar naa kon 2019 la xaw ma. waaw waaw mu ne mandat bii ngeen ma fale sept ans. Mhm. moom Macky Sall ci wolof ci leer la ko wax. waaw yoonu yoon du sax benn. dane mooy sama premier mandat. waaw. élection yii di ñëw bu ngeen ma wóoluwaatee gis ne li ma def baax na nàngam ak nàngam ngeen falaan ma mooy sama ñaareelu mandat bu jeexee ma dem lii la ko waxi man sax damaa ne bu ma sukkandikoo woon ci wax jii nii coow wërta am. parce que moom wax na ne duma def. waaw te man déggaatagu ma mu ne danaa def. ma jàpp ne xëy na kon foofa sax man bu ma sukkandikoo ci wax ji laa wax de. ci wax ji ma wax dama naan kon jërta coow. nañ jàpp ne kon du def. ba tey da nga jàpp ne du def. ba tey man dama jàpp ne du def. léegi nag bu ñu àggee ci dana def man de jàpp naa ne débat bi xam nga fan lay mujjee ak politiciens yem comme que dëgër na bopp ba ne day def léegi nañ fexe mu daanu nañ fexe du gañe parce que daanaka boo dee xool kenn ci ñoom. lëm tënku lam jàpp dëgërul lool lool lool lool lool parce que gars yi dañoo garaaw. Hmm. loi biñ koy woote fexe nañ ba bañ ne bu ñu wootee loi bi ba pare danañ fexe ba mu am coow maanaam day am débat. nul ne peut exercer ak nul ne peut faire ak deux mandats ñi ne sept bi ca la bokk ñi ne déedéet deux mandats cinq ans la constitution bi wax bu toftaloo <laughs> deux mandats cinq ans ne déedéet. citéwul cinq ans yi deux mandats rek la wax deux mandats rek waa léegi kon nag foofu damay laaj question bi mooy lan moo ci dugal cinq ans ak sept bu dee constitution moom deux mandats la wax waa kon kay constitution boobu ñemewut a taxaw waa cour euh, euh, waa fan la sax waa cour des constitutionnels ñemewuñoo taxawaat na ñun reconnaître ñu mandat premier mandat sept ans te ñoom cité wuñ ko ñoom deux mandats consécutifs la ñu wax comme que cité wuñ ca binduñu noir sur blanc ne cinq ans wala sept ans binduñ ko deux mandats yu takkaloo la ñu wax yaakaar naa xanaa ñoom yebuñu sénégalais yeb gu toll ne ñëw taxawaan naa ah mandat bu njëkk bay sept ans kat ñun reconnaître ko deux mandats cinq ans bu boobaa nag laaj bi ñu leen di laaj mooy cinq ans fu ngeen ko bindoon wala da ngeen ko bindoon nëbb ko moo tax ma jàpp ne coow loolu pour man encore une fois rek répété du bëri wax. ba tey man damaa gëm ne rek Macky moom ak li mu réalisé wax dëgg yàlla ci infrastructure li mu tabax li mu defar ci wàllu assainissement ci dëkk bi li mu liggéey TER beeg BRT beeg euh, jam ñaajoog euh, euh, xawma autoroute yeeg bi jàpp ma ne xanaa moom Macky Sall dina nangu nag jël martu di ko tojaat te loolu mooy woote troisième mandat Sénégal yi génn leen rayante leen dee leen ba jeex tasaare li li ma fi def toj leen taal leen bu dara taxaw na lépp yàqu man jàpp ma ne xanaa Macky Sall nag mentalité boobu ni mu doone ndaw a xereñ gi ko yàlla may ci wàllu xel ci wàllu politique dimbale gi ko yàlla dimbale ba fi mu jaar mës jaar ci benn obstacle ñëw ba doon président mën mës ta dugg kaso man damaa jàpp ne xanaa loolu ko yàlla dimbalee nag du ñëw ba ci ndaw li moom di ko yàq ci koo xam ne man nga kite nguur gi dem bu la sénégalais soxla waatoon am nga droit présenté waat ci beneen élection ndax say at say at may na la ko mhm. Brésil looloo fa am président bi dem na ñëwaat bu boobaa kay kon na défendre bilam te dem mhm. moo gën a bu demee lay ñëw bu fekkee la ñëw dafa ñëw jagul baaxul sénégalais yi ci boppam ci seenu doy waar ñooy taxawaat di jooy naan ana Macky Sall na ñëwaat gis nga bu ñëwaatee dañ ko naan yow mii lañ doon xaar yàkkamte woon nañ kaa yi demal jël demal bi. bu xamoon doo dem. bu xamoon doo dem waaye léegi nag pour man politique bi foofu la. waaw waaye du ci ay xëccoo troisième mandat Macky Sall moom xam nga lu mu waxoon. Mm. xam nga dégg ko dégg ma séntu ci lu ne. ba mu des ay troisième mandat. lii moom na fi yu bëri yoo. <laughs> xam ma séntu ci lu ne. ba mu des ci ay troisième mandat waaw kon kay euh, du ko def. man Mame Mor Mbacke xam nga boo ma laajee lu may xam du ko def. Mhm. te beneen différence bi mooy xam nga Abdoulaye Wade sax ñi mu fi fekk ñoom coow boobu moom bi mu doon opposé wu. Mhm. Euh, moom jaamaarloowul ak ñi nga xam ne dañ fi bëggoon éterniser wala dañ fi bëggoon toog troisième mandat. mais moom dafa bokk ci ñi ko xeex. ci ñi ko xeex. ni looloo tax kaawam uute. wëru fee toogaat. wër def troisième mandat. waaw moom dafa bokk ci ñi ko wax. ba gàddu as laam ne day dem place yi fa la ñuy toog mhm. waaw kon kay xanaa moom moom moom mi doon xeex ne waru fee am xanaa du moom mooy ñëwaat ne war na fee am wala boog réew mi daa soppeeku ñu dem Ginne te diggante bi te yëguñu ko a ah, nañu xoolaat environnement bi waaw ndax jaww ji moo tii moom Sénégal damaa jàpp ne la araamoon démb wërta mën a dagan de mm-hmm. même boo liggéeyee souvent nag njiitu réew yi parfois il faut ñu xool seen seen seen entourage parce que forcément de dina am ñu oustaz jiite jafe na de parce que dina am ñu la jay de. mais gis nga nag attention jërëjëf Mamadou Omar Ba bi nga tuddee baatu entourage xam nga lu lay xamal ne gars yi ci ab ay tappale la ñu nekk. Mm-hmm. dañu naa institution constitution. loi mm-hmm. moo féete ko ñëpp. waa léegi ba tey loi ñëw constitution ñëw war laa tënk yow nga indi affaire yu jege ñaaleeg dañ maa forcé dañ maa poussé dañ ma mën léegi loolu fu ñu ko bind. te dama daa dégg ñu naan tubaab bind la gëm kayit la gëm. waa léegi yow mi nga xam ne yow yaa yaa ne yaa représenté tubaab boobu ci wàllu bind ci wàllu gëm-gëm ci wàllu écrit bind. yaa taxaw tey ne da nga koy jalgati ndax lan ah Mamadou Omar Ba nee na ma boo demee réew mi yàqu ama di jaay nee na ma il faut nga toog ba ci kanam yeggali jàkka ji nga commencé woon toilette ya nga doon tabax fee gasaguñ foos yi il faut nga toog pour ñu mën a bët raakool bi yooyu mooy lan for naa ci wéewu bay ñu ne fi ñu ko bëgg a jaarale mooy carte yi genre jaay ay carte ay carte membre bu ko ay 2 millions wala 3 millions sénégalais jëndee ñoo xam ne ah ñii kat bëgguñ ma doyalaguñ waaw ta constitution nee na la demal. waaw nar ko nattee foofu loolu tamit dooy na waar. waa léegi kon loolu kon du ñu dem eh, kii ñu effacer constitution bi ñu ñu ñu def ci balankoo xaw ma. Ah. léegi ta toog rek léegi yëf yi ñu di ko lijjanti ci nañ xool jaay ay carte nangam ak nangam kon kay léegi li ñu tënk jëratul mu ñuy tënk lu neex waay na def lu neex waay kon na dem def ko te xam ne dara tënkatu la ñoom ñi nga xam ne ñoo war a doon suñu exemple ci wàllu tënk ci loi. buñ demee ba ne dañuy bëtt loi nañu tese xool jaay ay carte bu jaree waa carte yi moom bu leen neexee ñu génnee 3 millions jënd nañ ci yow loo cee xam. dara da ngaa toppoon ñay jaay carte yi da ngaa xam session ba nam doxee. Mm. xamoo ci dara. moo tax daal pour man yii yëpp daal ay jël bu gudd ak ay finna ak ay coow ak Macky Sall 2024 mm-hmm. demal ci jàmm. ku bëgg a présenté wu présenté wu que gaañ meilleur gagne. boo bëggee ñëwaat ñëwaat. ku bëgg a ñëwaat ñëwaat. Sénégal jëm kanam ay ci kon ñun itam ñu jëm kanam deux heures di matin jot na. Mhm. ci rajo Futur Media. ma tàggu leen foofu rek dig leen daje ba ajjuma ji dellu si ak jàmm ci seen beneen émission yóbbalu julit lu may loolu Mamadou Omar Ba mi ngi nii toog fas yéene leen a gunge li des ci guddi gi xibaar yi nag ci kàllaamay français lay doon bii moom lañuy ànd ak moom ma koy dalalaat jàmm. di leen wax jërë ngeen jëf ñu fanaan ak jàmm moom ma naan ko bonjour. bonjour oustaz. bisimilah. Boubacar dans le département de Podor, la gendarmerie a mis la main sur un faux médecin. Abdou Diouf est accusé d'avoir pratiqué illégalement la médecine. Le mis en cause se présentait comme étudiant en sixième année de médecine et a eu à effectuer un stage euh, à l'hôpital de Pikine. Podor, d'où nous appelle Moudouli. L'affaire s'est produite dans la journée de